الاسم الإله ngarangoy kooka di kii may bëgg a way sëñ Saaliw Mbàkke bila emade ne nga ma ndax xelaa reg te yow se diine man doy na ma sëriñ Saaliw Mbàkke aafiya yaa xayra munzilin waqa bi azbala wa xayri munzilin xaba bi basmala alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi zawi nawalil waali alhamdu wa shukuru maa lilaahi ala nabi waladi abdillahi buurub aras moo di buurub dëgg-dëgg budul dee bis du folliku bis alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndegam buurub aras moo saxal alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndegam mboolem ñi baax nga naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndegam iblisatee ñépp naa alhamdulilahi jërëjëfati sëriñ Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibey sëriñ Tuuba yi fi teew yépp gannaaw ba ñu santatee yàlla subhanahu wa taala nam gën a yelle dellu julleete ci yonenteem bu tedd ba sallallahu alayhi wa ni ñu ko suñ borom digale ndax moom yàlla moo na wax ci alquranul karim xamal ñu ni ñu man yàlla ak samay malaayika ñun ñëpp dañu ànd maasa julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yéen ñi nga xamante ni gëm ngeen dee leen julli tey seen mal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayuha allazina amanu kon ginnaaw bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di ñaanal Serigne Touba cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Basir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mboolem naan yi nga xam ni sumb na ko fas yéene koo liggéeyal maamam di baax di cheikhul xadim yàlla na ko suñu borom dëral te kàttanal ko te may ko fekkee tal ba mu yeggale ko te ñun taalibe ñu fekkee ko ànd ko moom. noonu itam dañuy ñaanalee mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa bi yëpp ak mboolem xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp fa tabaarakallaahu jëmm ji nga xam ni tey moo fi sëriñ Afiya Mbàkke di sunu maam sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ faw buñ bëggee mu am xorom ñu waxtaane Cheikhul Khadim am na mbokk mu baax muy faral di wax ni jataayu murit lu waxtaan wu yàgg-yàgg du weesu mi ngi mel ni jataayu waxtaanu pël ak moroom ja waxtaanu pël ak moroom ja lu waxtaan wa yàgg-yàgg du weesu nag a baax waxtaanu morit ak morom ja itam lu waxtaan wa yàgg-yàgg du génn baaxub seexul xaddim bi te sëriñ Tuubaa moo wax ni damaa dem ca suñu borom tabaraka wa taala xamal ko ne ko yow yàlla kat danga maa booleeg mbooloo moo xam ni dañ maa bëgg lool sopp ma lool waaye ñu bari lool ba xaw ma nuñ toll yaakaar ma lool it ma bëgg nga wax ma loo xam ne danaa leen digal ñu di ko def ngir boo bu ñu bokkee daje fi yow lañu ñu yaakaaroon ci sama jëmm ji tos nee na ba ma ko waxee bu suñu boroom doonoon koy fàtte dañu dënn ba ma yaakaar ne dama fàtte Sëñ Tuubaa nee na ma dellu ko baamoo nee na yoonu ñetteel yi bi ma ko baamoo dañu ma Ahmadu ma ne ko Mbàkke ma ne ma ñoom kat amuñu lu gën ci ñoom waxtaane sa jëmm ji Sëñ Tuubaa teg ca ni kon fekke fu ñu may waxtaane jar na sol daldi weñ di ko doxee ba daldi weñ yi xaar dal ni bépp jataay boo xam ne dajee nañ di ma waxtaane baa ñuy jàng sama xasida yi bu dee kenn la maa nga ca wetam di ko wetti bu dee kenn ku toog di jàng sama xasida yi wala mu toog rek am xelam nekk ci man mu di ma xalam baa mu di ma tudd Sëñ Tuubaa nee na maa nga ca wetam di ko wetti buñ dee mbooloo maa nga ci seen biir Sëñ Tuubaa nee na bu jataay ba taa dëkk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana wàcc jataay teg ca ne bu ñu demee ba ab diir bu jotaay bi tàddeek yàlla suñu boroom dana yebal malaaka yër yërmande yi ñu tiim leen di leen ko sotti ba keroog ñuy nopp loolu ci jotaay waxtaane Serigne Touba rek lees ko mën a amee dana cee teg ni kon fekke jotaay bu ñu may waxtaanee dana tax a gudd fan ndax Serigne Touba nee na bépp jataay boo xam ne def nañ ko tamu tax diirub lañ fay nekk nee na bu doon montre buy dox dañ koy pos bokkutu sa dund kon ñu déglu tuuti rek ngir loolu ci jataay waxtaane Serigne Touba rek lees ko mën a amee cant gi nag ci Serigne Touba rek la jëm ndax kenn ku ci nekk boo tëddee ba ngegenaayoo sam ngegenaay yow dong nga wéet da nga xalam xalaat ni Seexul Xadiim defal na la lu la jomb lu jar nga dëkkee di ko saxal ñun nag mënuñoo sax di di di ko sant ba dab suñu àq ci moom la ma waxoon sëriñ Issa Diène rek fii benn bis mu koy daajal ab baraag ba yàgg sëriñ Touba ni tëll génn sëriñ Issa di ko xool ba yàgg jëmmi sëriñ tubaa ji ni mu taaroo ak ni mu neexee ci gis-gis tax sëriñ Issa di daaj ab baaraamam te yëgul ni mi ngi daaj baaraam di xool jëmmi sëriñ tubaa ji rek di daaj baaraam bi ba baaraam bi di sotti deret sëñ Tuubaa di ko xool ba yàgg sëñ Isaa dànn ni ko Mbàkke ak neexoon maam àdduna ak la ca biir sëñ Tuubaa ni ko Isaa nga jublu ci lan mu ne ko xanaa santeena la ko rek sëñ Tuubaa ni ko taxul ngeen def sama àq ci yéen Cheikh Isaa yoo xam ne ko ay Mbàkke kon nañuy def mu ne ko da ngeen di yëg ni naar bee fi indi xorom si kon nañu yëg ni lu am sëriñ Tuubaa am na jeneen jëmm joo xam ne fekk la ko fii ci njaareem it moom it nuyu ko daldi di daanu dal di xotti mbubbam dal ko Mbàkke lu ma am yawa nu ma mel yow ah. ba ci mbub mii ma sol yow ah. dañ ne xuteet mbub ma suñ tubaab ne ko dangaa ngaa gore rek waaye keneen nit lu ma am mana a dañ ne ko tubaab ba nekk ca tugal tiim ay magasin wërsëg ma bari lool xel ma dal lool jàmm jamo am bu ko yëgee bu ko yëgul fii la ba dal ni ko pël ba ca gànnaar jiital ay nagam jàmm jamo am bu ko yëgee bu ko yëgul fii la ba wati na Cheikhul Khadim dal ni ko jàmmi àddina ak alaaxira Cheikhul Khadim kon li ñu Serigne Touba defal jar na fu ñu toll di ko sant cant goo xam ne nag du am cant nag daa bari façon mbagg nii nga def daa bokk ci xeetu cant yi gën nii nga def daa bokk ci xeetu cant yi gën ndax kenn ku ci nekk mën ngaa am pas-pasu wéet rek di sant Serigne bi waaye dajale say bokk ñu ñëw saafonte nga defaree leen ay berne ñu noppi jàng xas day Serigne Touba toog di waxtaan a jëmmi Serigne Touba bi loolu nag mooy cant gi gën mooy gi gën a jotal yàlla na ko sëriñ bi nangu sëriñ bi ñuy waxtaane nag loolu laa junj léegi ci moom ngir ñu xam leen ñu defal ba tax saa su nekk suñu yitteeg suñu sagoog suñu lépp ñu jëmale ko sëriñ Tuuba fexe nag ba di ko roy ci lépp ndax sëriñ bi lépp lu mu am ak lu mu mel yii moo ko may mooy aw fit bu mat mooy rëyug bëgg bu mat mooy ak njàmbaar gu mat su ma nee rëyug bëgg nag mooy Serigne Touba moo wax ni lépp lu mas a xëccoo góor yàlla ba teg ci loxoom ba tam génn dañu mboolem góor yàlla bu ngeen fi dégg bañ di ko naw la mu yor ba kaala ko moom Cheikhul Khadim moom góor yàlla boobee Serigne Touba nee na moom ba mu ci jotee ci ndiggam la ba tax wuti la góor yàlla bu ngeen fi dégg cër ba mu am bañ di ko soow ba mu ci jotee ba kaala woo ko Serigne Touba nee na ba ma ci jotee man sama ndigg laa ko takk wuti la nee na li ma wutale góor yàlla yi mooy ku ma sa jóg wuti yàlla balaa ngay àgg suñu borom wan la lu fees sa bët nga wiññeen dama koy misaal ci bari xam ngeen ni ku mel ni Mourtala Gueye mii bu génnee am problème mu dépasse 5000 francs génn dajeeg sëñ Moustapha mu jox ko 100000 francs nu muy def day wiññee dem toog këram sëñ Tuubaa nee na góor yàlla yi noonu lañ mel ku rek wuti sa borom balaa ngay àgg yàlla wan la lu fees nga wiññee ko toog Seexul Xaadim nag nee maa ni dan saa borom lu mu ma wan sama bët génn loolu xad insarafat xaaji ila fatixi ratxi wa inni lahu abdun wali jaari bi leen nee na ba ma soppee samay yitteeg samay aajo lépp dëgg ma suñu borom tabaraka wa moom mi nga xam ni mooy benn buur waaye ma ne moom ba mu defal ma li ab sang di defal jaam te mooy bëre nee na ma am ci moom loo xam ne kenn ma ko jaam bokk na ci réeg bëgg Seex Xaadim nee na bi mu njëkkee gis yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi feeñu ko jàkkaarloog moom Sëñ Tuubaa nee na yonent bi ni ma loo bëgg nee na boobu maa ngi jàkkarlook moom di ko gis mu di ma gis may wax muy dégg muy tontu may dégg waaye mënuma koo laal yonent bi alayhi salaam ni ko loo bëgg mu ni ko li ma bëgg daal mooy daroog yow sama yaari woom yii ak sa yaari woom yii daal laa bëgg ñu laalante waaye Sëñ nee na bi may gisaat yonent bi sallallahu alayhi wa fekk mu nekk ci jàkkam ji ci daarul xuddoos doon def i'tikaaf ba yonent bi alayhi salaam feeñu ko ànd ak asmaa ahli badrin sëñ Tuubaa ne na keroog yonent bi daa ferankulaayu ci sama kanam ba suñ ñaari woom yi dara kon lam doon lam doon lam doon sàkku am na bu doon koo xam ne kuy doylu la kon foofu la yem waaye fa sensé la ko bi loo bëggati mu ne ko bokk ci ñii nga àndal moom daal muy asmaa ahli badrin boobu nag bokk ci lim bi ñu ñu leen di limaale taxu sëñ Tuubaa di waaye wàccuwaay bi asmaa ahlu badrin am ak seen i daraja seen grade ya moom Cheikhul Khadim mu amee yent bi ni ko ah bëgg nga lu rëy nag bëgg nga lu rëy fii nga toll de ku fi masaana yegg si ma feeñoo la nii ma la feeñoo lii nga bëgg la ñuy bëgg waaye kuñ ci mën a doon cat yan bi koy maye doo ko àttan da dem ba ci digg ba nga yàqule te yow Cheikhul Khadim bëgg ma nga yàqule ndax gis naa fi nga toll ci ma gis naa ni nga ma bëggee ndax bëgg yonent bi moom ci Sëñ Tuubaa la la la la yem ci la tàmbalee ci la yem damay faral di wax ni réew mi léegi bari na ay nabiyeen ku nekk di sos ay kuréel naan groupe sopp nabi ak nabiyeen waaye benn nabiyeen mooy am mooy Cheikhul Khadim ndax li ko yonent bi jaral gisaguñ ku ku ku mu ko mas a jaral li mu defal yonent bi tam gisaguñ ku ko mas sa defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mahat mahabbatiyan muxtaara sayidina xabil maxaani wal ahlina wal walada wax ni bëgg gi ma bëgg rasulullahi alayhi salaam moo effacé ci sama adduna ju ma waroon a bëgg baa ay doom baa alal déedéet mënatuma bëgg dara loolu rasulullah alayhi salaam su wax ni dammi wa wax ni sama deret ak sama deret doom ak sama deret ñoom ma yaakaar ñëpp jaay naa ko jotee ko deret rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn am na ko ma sa fekk fii di ko siyaar si njariñ andi dàmba gura ñëw siyaar si ko Sëñ loo ci jublu mu ne ko Mbàkke damaa dégg ñu ni da ngaa bëgg gura sëñ bi ni bëri dal ne ana Malick ñu ne ko mi ngi nii mu ni maa ngi nii sëñ bi ni ko duggal ci kër gi nga wisital ma ko lu fi gura lañ ko génne ñu génne mboolem gura gi sëñ bi dencoon bii kër gi jal ci kanam sëñ Tuubaa ne leen bis ni ki tey kay maa ngi leen di xamal ne araamal naa ko sama gémmiñ gura lu tax ndax xam ñoo ngi may bëggloo keneen ku Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam loolu mooy ak bëgg xam ngeen ne bi sëñ Tuubaa nekkee Gabon jaayante woon naa yonent bi ba bu daan bind xasida yi bu egsee ci turu Seydina Muhammad daay xong la koy bindee na ne nekk na ci dëkk boo xam ne daa dem daay xong amatu muy def ak excès ci tur Seydina Mohamed dali tëb ngir war maal ko bañ ko bind ba yàgg mu xalaat ni ndekk man sama deret bi daa xonk te jaayam naa ko yore ba excès ci tur Seydina dagg yaram wi mu naaj mu bind foofu it kenn mosu faa gis Seydina Mohamed ci ak bëgg am na ku ko mas a fekk fii muy bind alxuraan moom sëriñ bi mu nuyu ko sëriñ bi ni ko ana tudd mu ni ko Muhammad mu ni ko ana ana ana kuy sa ndey mu ni ko Aminata mu ne ko kuy sa bàyyi mu ne ko Abdallah mu ne ko foo bàyyi ko mu ne ko Medinatu gii kisaarum Sëñ gi di génne yére warga di ko ba mujj gi am ku ñëw ne waa ji lii nga lii nga a jël ki nga ko jël ta dem ndax moom kat daal ne mu ñu moom day daa mel ni dem na mu ne da ngeen di xool ko gën sa bàyyi Abdallah sa yaay kon moom rek ma sa bëgg yonent moo tax nag yonent bi alayhi salaam xamal ko ne ko bëgg nga ma bëggee goo xam ni bëgguma nga yàqule waaye nag indil naa la ab sërite nee na mu ne ko lu mu doon mu ne ko bis ni ki tey bu la soobee ñetti weer moo la tee doon xutbu zamaanu jamono kenn ko doon te amoo ñeent fukki at waaye bu la soobee mu fulal la ko tey nga doon xutbu zamaanu jamono xam ngeen ne loolu neex na waaye Sëriñ Tuubaa ci réy bëgg gi dana yonent bi neex na loolu waaye lii ma xas laa bëgg lu koy maye yonent bi ni ko ah kon nag danañ la teg ay natt yoo xam ni boo ko yóbboo fa ñu bëgg mu àgg fa lii nga bëgg danga ko am sëñ tubaa ne ko nu natt yu toll mënu ko ubbil alxuraan sëñ tubaa def li si xaar ubbi alxuraan yam ci mi attaani waxam suñu wasamaa noonu ñaar téeméeri natt ak juróom-ñett fukk ak juróom moo tax sëñ Moussa dal ni da ngeen di woy te balaaya fii sóorati laxwaani la am ciy laaya li mu sóoratul bàqara mooy natt yu Seexul Xadim yent bi ni ko des na mu ni ko lu des mu ni ko danañ la booleeg sa noonu jamono danañ la génne sa dëkk génne la sam réew doo leen wax mukk fa fu ngeen ma jële doo leen wax it kañ laay ñibbisi duñ la digal lu la yàlla tere nga def ko baa ñu tere lu la yàlla digal ba nga bàyyi def ni ko nag te natt yi métti métti métti boo nee uhu suñ borom dana dana la alak nangu lim la joxoon lépp alak ña nga ànd ni ko nangu naa dal ni ko waxuma ma yëg ay natt ci sama xol waaye dég doomu bu ma demee ci sama tànk yàlla yi ci sama xol ne dég gi ma dem metti na ma na ma alak alami maam loolu mooy aw fit mooy njàmbaar yonent bi ne ko kon bismillah li ci des nag mooy sa dëkk bii di Touba yaa fi nekk yaa ko aar ba lor bu la fi fekk léeg-léeg yaa ngi fi natt yi du tàmbali boo bëggee natt yi tàmbali nag da nga génn Touba looloo waral ba weeru koor wa jeexee sëñ Touba dal génn Touba ñëw Mbàkke bari yii it mat naa bàyyi xel sañ ci dëkk di xaar nattu sëñ Tuubaa rek ko ma sa def sëñ Maxtaar dama yaakaar ni ku sañ ci dëkk da ngay ñaan yàlla amul tële amul yoon ñaan yàlla amul dëkkandoo ñaan yàlla amul courant amul ndox dëkk ba xumb waaye sañ ci dëkk ngir yàkkamti say nattu wàcc moom sëriñ Tuubaa rek ko ma sa def ci yent bi feeñu ko ni ko sa borom nee na sa nijaay jii di sëriñ Mbusoo bi bëgg na la mbëggeel goo xam ni bu fekkee natt yi dana ñaan suñu borom ndax ku jige boromam la danga wax yàlla mu def taam na ci yow cofeel goo ne bu fekkee natt yi tàmbali dana ñaan suñu borom yàlla teggi natt yi te kon lii nga bëgg doo ko am Sëñ Tuubaa dal di ñaan suñu borom suñu mosoo ba jóge fi ngir bëgg ay nattam di ñëw te buñ fàtte ni Sëñ Tuubaa nee na laataa muy dem ci géej gi lu góor yàlla di am am na fu góor yàlla di àgg àgg na fa lan moo taxoon tam bëgg ñoo xett la képp bëgg ñoo dimbali moo taxoon Sëñ Tuubaa di dali tàmbali nag fu mu mas a sanc balaa mat weer wala ñaari weer mu fees dell ndax leeru yàlla gi nekk ci moom te nit ñi moom Seex Abdul Xaadir mu dem ba yi tàmbali nag dugg ci réew mi xam ngeen ni ñi doon yóbbu sëriñ bi sëñ Mahfous njëkke woon ci réew mi dama koy wax saa su nekk réew yi ñu wër Guinée Mali Côte d'Ivoire fu mu ci doon ku fa doonoon ab sëriñ bu siiw tubaab bi xam na rey na am na ci ñoo xam ne niñ defoon suñ tubaab lañ leen def dañ leen a jàpp jële leen seenum réew indi leen Sénégal rey leen doog a song nag gox bi Kajoor ak Bawol ak Saalum ak Siin ak Jolof fu taalub jàng nekk tubaab bi dugg leen fa xupp ñooñee ñu fay ku doonoon ab sëriñ tubaab bi jàpp na ku leen fi dëkk yi lu coow li bari bari benn lettre képp lañ ko mos a yónnee mu tax bi am na ci ñoo xam ne sax ba leen tubaab bi yónnee convocation dañoo dajale seeni bokk ni leen kat tubaab bee ma woo ma bëgg nag lu ngeen ci xam mbokk yi ne ko lenn rek kay maanaam kenn lañ la woo mu ne dañ ne ma bu subaa naa leen wuyu si ñu ne ko suba 9h na nga dem ba ñu yow la loolu amoon na da ngay wuyu ji rek yow la lu tax bëgguñu tubaab bi ñëw rey la ba noppi man ñi àggoon nañ ci ragalu tubaab am na ci ñoo xam ni dëkk bu ñu yëg nii ab tubaab dëkku na fa borom dëkk ba day tëj baa mu gàddaay génn dëkk ba ba yëg ni tubaab yi génn mu doog mu doog mu doog a kenn ñemeetu la jël engagement doonub sëriñ sëñ mu Ka ne bu ñu ne woon ku kaale woo dem maa yem ba góor ñëpp amu sóoru wootu tey raamal bu ñu ñëwoon ku sol mbaxanaa dem Congo góor ñëpp marinière kay xëeñoo Congo dañu ko bëggal ko nag yow istatife dara ba fa ndar sudul sa maajo ko tey suuka dëral yaa dindi maslaa tubaab ci diine yow rek teel a béy ak suñu diine dal ni ko xaatal ko seen bax ni jëwoon ko Congo kenn du ko tollante waaye neween ma Congo yow rek lañ jënd te ngeen a raxo yi yaa tax na moom suñu bopp tey day fekk dañu ko kàmbat ci douze yë delluwaat ca gaal waree la teere ñoo ñoo di jël gaal ko sàkk doon kem bambate ci réew mi dangaa demul gabaw si dégg gaal yi gabaw bi ñuy sëriñ si ñu sawaat bato bi yóbbuwoon sëñ bi bu ko gën a gaaw a waaye amul ko disponible la nga fi am ba mën ci géej daa ni dañ may wax ne waxtu bi jot na ndax waxtu bi dafa xat fi may tëjee mooy dafa am naar yu ma sa fekk fii Sëñ laaj ko ñeenti laaj dañ ne ko Mbàkke dañ laa bëgg laaj sa digg ak sa borom la ci xew ak diggal sa digg ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak sa digg ak mbindeef yi waaye ak sa digg ak sa taalibe yi dañ ne ko sa digg ak sa borom la ci xew sëñ Tuubaa ne leen jàmm jàmm képp naar bi ni ko lu tax mu ni ko lu yàlla mës a diglee naa ko lu mës a tere mosuma koo jógee mas naa wax si ma sàmm ne ko ma mu ni ko mbàkki mu ni ku la yaakaar sa yaakaar la xam nga lu tax ko sa a def sëñ bay jaxate ni ko yaa sa yàlla man muy tax may tuubi defoo lu bon mosulaa def benn na sa defal am na bis mu ne ko lu yàlla ma sa digle def naa ko lu ma sa tere mosul ko mu ne ko waaw sa digg ak bi nag mu ne ko jàmm mu ne ko lu tax ni yàlla bëggee ku ni toppee yonent bi toppee naa ko ba nag bëggee ko loo xam ne kenn su ko ko bi mu ne ko waaw loolu de moom jàmm rek ci topp mu ne ko waaw sa diggante mbindee fi nag sëñ nii nii sama diggante mbindee fi moom lii rek lañ seet am bokk naa ko lu ñu yor ñoom ba naa ñoom te lu ma am bokk naa ko ñoom mu ne ko waaw sa taalibe yi niñ la bëggee kon lu ko waral mu ne ko du dara lu dul dama leen di jariñ te duma leen lor dal ni ko suñ moroom ci boppam moo ma siddee may njariñal kese lu ànd ak lor bi ma dajeeg tubaab yi bu ma yàlla ne woon demal fayu dama ñaan suñu borom melokaan woo ñuy wax soxor mu defal a mën a fayu dal ni ko xanaa xamoon ne lii na ko ci man njariñ lu ànd ak lor mooy Seexul Xadiim ku yàlla ma sa dénk njariñ bokk na la lor ba mu des suñ mu ne ko sa diggante sa taalibe yi ni ñu la bëggee mu wax ko loolu mu ne ko waaw damaa gis la jàpp ñu bëggante bëggante lool te mënuñoo tàqale ko Sëñ Tuubaa ni leen a loo xam ne séddooguñu naa mu ne ko ah loolu de xanaa ne ko waaw mu ne ko lu mu doon sama jëmm ji laa leen boole ñoom taalibe yi te séddoogul ko moo tax faw ñu bëgg kon nag sëñ Tuubaa rek moo fi nekk nañ ko sant te kennal te gëm ni ku la gën a kennal sëñ Tuubaa loolu la gaa yi bañ a dégg nangu nag moom mbër ma dem ca làmb ja daan ñëpp ñu tuddee ko roi des sédé kennal ki dàq ci football ñu tuddee ko meilleur joueur kennal baa ki dàq ci dugal ñu tuddee ko meilleur buteur kennal waaye ki man ci diine ji man ci lislaam man man man jaane alej la tur duma duma noonu yi ñu ko boole doon ñëpp ñëwaat moom Seex Wax ne yëkkati lislaam man ci diina ji ñu ni kenn Sëñ Tuubaa ñu ne du tax ku yàlla bind Sëñ Tuubaa la man ki gën ci mbindéef yi bi ko yàlla yónnee mu wootee xare xare ba ku nekk mbooloo la ànd xare ba da 313 la damay misaal rek léeg-léeg ñu rey ko ca moom léeg-léeg mu rey ca ñee waaye ki man ci mbindeef yi keroog bi muy dem géej moom kat tubaab bi may nañ commande dix personnes teewul wax dañu ne ñëpp toog du ma ànd kenn wala dëgg na lu dul xalimaam yëpp ci yëpp bi mu jàkkaarloo nasaraan bi ci yeewal ku ma sa ku ma sa wax loolu pour suñu tubaab am koo xam ne nasaraan yi lay gis si keroog nga ma sa jàkkaarloo moom mosu ko leen a gis te te jamono jooju ni la ni ni tubaab yi rek koo woon te jamono jooju Seexul Xadiim moom ma saara na ak sama jaas na bi nee na ñu ne ko Ahmadu Bamba iblis dana ni gars yi ñu toog yéen moom kan mu ngeen ma mas koo a saa bopp ma ci Sëñ Tuubaa ne keeku mu doon ñu ne ko keeku moom la ñu wax góor na mooy rek ma doy ci moom gis bu la laa ko ni ma doy nee na keroog iblis daa riir wuy si ma nee na sonnoo ma xattar bi ko mu daanu ma jéggi ci dënn bi mu ni wóoy ni Ahmad Bamba bàyyi ma ma tàqali ko yeer bi ma mos a song sa yeena ci gën a sa waa ñu ci gën a daasa sëñ Tuubaa ne sëñ ni leew ala ngeen ci ko biyaw naa jiitu loo xam ne nag moom rek ko mas a def ba muy dem moom doo nga am dañu ñëpp toog leen bi mu ko neexoon mu toog jariñoo ko moom képp waaye bi ne nan ko jox addi ndigal jim na de sëñ Moustapha ne nan ko jox addi maamam sëñ Touba ndax sa bëgg ci sëriñ Touba rek moo waral lii te ñun bëgg sëriñ Touba rek ñu jik ñu déglu bëgg Serigne Touba rek ñu jikk ndax Serigne bi engagement bi mu jël ci ay taalibeem dañoo gisagut ku ko mas def nag ci ñi jiitu woon ba dem ak ci ñi bëgg a engagement bi Serigne Touba jël ci ay taalibeem ferme fii la toog dégg saxaar gi riir mu ne sëñ Massamba lii riir lu ma mu ne ko saxaar mu ne ko ku ci bëgg a dugg nooy def mu ne ko dangay fay mu ne ko ndax mag dana fay. mu ne ko waaw mu ne ko ndax jigéen dana fay mu ne ko waaw mu ne ko ndax góor dana fay mu ne ko waaw mu ne ko jaboot doom di ndaw ji mu boot ci ginnaaw ndax dana fay mu ne ko déedéet suñu tubaab ne ko masamba mu ne ko mbàkke mu ko boo liggéey amal xiyamti ak bër ba nit ak jinne ak malaayika teew mbooleem ñi ma yaakaar man ahmadu maa leen di boot rogganti leen jiggil leen siraat ba dugal leen àjjana te duñ ñett loolu nag la gaa yi wër la jiitu woon mooy sa taalibe faat rek nga ñëw tekk ci kuusu bàmmeel fii laa mën a yem ak yow fii laa mën a yem ak yow nag taxul gaa yi jébul déedéet Sëñ Tuubaa nee na fa gaa yi tëlee muy ci bàmmeel fa lay tàmbaleeg sama taalib loo tax gaa yi topp kon nag nañu sax ci sëriñ bi mu di dëgg day góor góorgóorlu ci jaamu yàlla ak ci jàng xasida sëriñ Tuubaa yi ñi fi teew nag te di ay ndaw rawat na jàng ci xasida yi ñu ngi leen di gën a soññ bu baax ñu bàyyi xel yii xew léegi buñ ci bokk sëriñ Tuubaa dafa sonn ci xasidaam yi sëñ Ahmadou Sougou. moom Serigne Mama Sougou. moom Serigne Ahmadou Tasrif moom sëñ Jiri Wadaan. sama xarit moo la bindal jërëjëf moom sama xarit la ah. eh, jërëjëf Sougou lii bërki démb rek dama nekk itali ci menn mbokkam mu ñu wax sëñ Daaru ma woo ko parce que sëñ Ahmadou Sougou mu daal di koy digal ni ko mboolem taalibe waa daan yi nekk foofu yëpp digal naa leen ñoom ñëpp ñu daal di ñëw siyaar si la loolu nag Mbàkke rëy na ci man lool te jàpp naa ko moo tax sec bi moom xam naa sama noppee dama ko jox sëñ Mahfouz sama xarit rek moom it joxaat ko gàddi yi <laughs> kon fi ma doon leeral rek te bëgg fee daaneel mooy nañu bàyyi xel xaside yi gis nga nit ku nekk la nga gën a bëgg ca la seytaane yi dugg bëgg a dugg ba yàqal la sëñ tubaa xasidaam yi da cee sonn lu ne mu daj ko ci waaye yii xew léegi taxul sëñ tubaa bindoon xasida yi sëñ tubaa dafa wax ne sama xasida yi dafa mel ne sama yàpp yaram laa dagg di leen ko jox léegi bu ñu demee bàyyi concurrence di am ci xasida yi ñaan ëhlu nangam ëhlu nangam dëgg la ku ne am nga xasida goo préféré di ko jàng am naa xasida gu may jàng kaneen kaneen kaneen waaye bul ko imposé kenn loolu rek laa bëggoon ñu leeral ko xasida yi nañ koy jàng ngir yàlla rek waaye damay faral di wax ne bu jébbalu ci ak xasida amoon ñu gis sëñ ma Massamba def ko ndax lim defal sëñ Tuubaa ci xasida yi kenn defalu ko gis nañ ba tàyyi nit jébbalu ci sëriñ bi mun la jox naa la wérdu tiijaan ba wérdu xaadir bàyyee la ko waaye demal jël xasida ak sàngam muy sa sëriñ moom gisaguñ wala boog déggaguma kuñ ni moom la ko sëriñ bi defal kon nag xasida yi nañ koy jàng ngir yàlla rek waaye buñ ko xasida gi laay jàng far fos su moom ngay jàng wala ku ko jàngut yéegoo wala kiy jàng xasida gi maa ko gën a yegg ndax gii laay jàng te moom gee lay jàng déedéet ku nekk na gëm ni xasida nga ngay jàng rek moo gën nga nga jàngut am na ko ma si ñëw sëñ Abdoulaye ne ko Mbàkke damaa mokkal xasida yu bari ma bëgg nga wax ma gëcc gën ma di ko jàng sëñ Abdoulaye ne ko demal andil ma gëcc yees ginnaaw lijjanti nga ba xam gëcc gën war ngaa mën a xam gëcc yees kon nag loolu ñoo ngi leen koy gën a dénkaat bu baax sëñ Moustapha ñu ngi lay ñaanal bu baax bis bi yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba ndax jëmm ju baax nga jëmm ju yiw nga jëmm ju mën a maslaak ñëpp nga te Serigne Touba rek la ñor kon Olof Ndiaye day faral di wax ni uude moom lu mu wax ci béyu feebar dañ naan derbee tax bu ñu ne bu ñu toogee di wax ci yow xëy na dana am lu muy nuru waaye nag li may faral di wax saa su nekk nit moom saa sooy wax ak mbaaxam war ngaa fexe balaa ngay wax ca moom. boo génnee doo ci am kersa ndax ña ngay waxal xam ne lii ngay wax dëgg la loolu rek moo ci am solo euh, euh, maa ngi lay fàttali itam Mbàkke ni la sa xarit euh, Moustapha Gueye directeur CROUS dafa ma wax sànq xamal ma ni ma boo àggee nag ma waxal sëñ Moustapha ne ko maa bëggoon naa cee ñëw maa bëggoon a ñëw sama bopp waaye way juróom wu jigéen moo tawat moo tax mu ne ma Mourtala Fall ak ñi mu àndal ñoom ñëpp moo leen yebal waaye moo bëggoon a teewal boppam loolu moo ma ko wax téléphone moo tax yóbbante la mënuma koo ñàkk bañ a wax man nag may sàkk ci yow nga ñaanal ko itam ndax jëmm ju baax la jëmm la joo xam ne man li tax ma naw ko mooy dafa bëgg fi mu dëkk muy njaareem te ñun amuñu lu dul dëkk bi fu ñu mën a nekk fu ñu mën a demit bu guddi jotee rek guddi guddi njaareem njaareem la ñuy kon nag ku fi mën a nekk te jàpp dëkk bi eh, am ci yéene rawat na ci ndaw ñi ndax ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk yor nga njaboot te kenn ku ci nekk taalibe yi topp ci yow yaakaar la boo sañoon ku ci nekk yaa koy yëkkati wutal ko liggéey mu jàpp ci dara kon nag bu taxawee kenn ku ci nekk mu jël la wutal la liggéey loola ñun la ko defal kon nag Mbàkke dama lay ñaa dama ñaan nga ñaanal ko bu baax a baax ba yéeneem ci dëkk bi mu àggale ko ak mbooleem ñi nga xamante ni kat am nañ ci yéene yéene ci moom maa ngi jéggulu ñëpp di balaax ñëpp soxna Jaaratullaahi Sarr maa ngi lay siyaare sama xarit ak mbooleem ñi nga àndal ñëpp képp ku fi teew muy góor wala jigéen ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi ak sant gi ak ziar gi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru moom sëriñ Tuubaa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér banaal yi mu naadal sëriñ Tuubaa yépp ci tuuba ak feneen fu mu manti doon mu eggale ko ak sagoom eggale ko ak wér ak fekki ak tal ci barke Seexul Xadiim ku ne amin yàlla nga ko ànd ak moom sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu te wér murit saadix sëriñ Moustapha Mbàkke ñu ngi lay nuyu yàgg say mbokk ñun waa daayira tey siiro di soppee sëriñ Moustapha Mbàkke di taalibe sëriñ Afiya Mbàkke ibnu Mamor Anta Sali sëriñ Moustapha waa daayira tey siirul asir ñu ngi lay sant di la gërëm ci xiir gi nga ñu xiir ci liggéeyal sëriñ tubaa xiir gi nga ñu xiir ci bëgg sëriñ tubaa ñu ngi la ci sant bu baax a baax ñu ngi gërëm ñi nga xam ni ñoom lan àndal liggéey bi wax dëgg yàlla su ma limee nag dana danaa juum ndax daayira bi dafa tubaarkàl la waaye ku ci mel ni jëwriñ Cheikh Gaas ale ale ñang Baye Cheikh Alaaji duma ma limee ñooñu rek yóbbaale na ñu ci des ñëpp lu mat weer a ngi walla ñaari weer nelawunu dañuy réunion guddi di réunion bëccëg boole ko ak seeni koppar ñu ngi tamit di nuyu soxna yépp di ci jiital soxna Khady soxna Penda Ndiaye tuuru njabootu alaaji Ahmadou Ndiaye Diop di dogal ngànt itam ci li nga xam ne ni lañ yegsee fekk kilifa yëpp fi toog ba noppi ak lenn ci bokk yi te kenn ku nañu waroon a saafonte ak yow te xataayu jotaay waral mënuñu loolu kon noo leen di nuyu ci turu njabootu alaaji Ahmadou Ndiaye Diop gépp kàddu gi itam egsi ci noonu egsi ci noo xam ne dana jafe ci noonu lool ndax jataay bi ay kilifa rek a fi nekk kër gën bàyyi itam noo fa gën a néew xam-xam gën faa tuuti xëy na daa mënut ñàkk nu teew rek ngir noo gën a woyof nanu yónni moo nu ko xa teew waaye ku dégg kàddu alaaji Ahmadou Ndiaye Diop ci tuuru am di Diop na nga jàpp ne tuuti alaaji Ahmadou Ndiaye Diop toll ni xataayu jamono moo toll ni kilifa yi dañoo nekk ci ay xat-xat ñu ci bari si ñoom waaye fii nu dikk mënoon nañ fee bañ a dikk ndax am nañ ay bokk yuñ ko bokkal yoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi mbaa yoo ne ci biir kër gi te mënoon a teewal kër gi ndax sëñ Cheikh Faty mii nga xam ne mooy maame sëñ Moustapha mii mooy jëwriñu sunu kër jëwriñ joo xam ne ju donn la ci lu yàgg a yàgg ah waa kër Baye Cheikh Cissé ñii itam di ay jëwriñ ci kër gi yoo xam ne mënoon nañoo teewal kër gi waa kër sëñ Sayri Diop mi nga xam ne sëñ Mun Njaay Diop jaar na ci loxoom bi mu laataan dem ci borom gaawaan ñoom itam mënoon nañoo teewal kër gi kon sëñ Moustapha sa maam sëñ Alaaji mi ngi lay nuyu bu sant bu baax di la gërëm bu bi ak cant yi ak ngërëm yi nag sa bokk yi nga àndal yëpp ndax lii nga def mënoon nga koo defee buntu ko sëñ Afi te kon du tee fekk la foofee waaye boo ñëwee fii ci buntu samaam di ko fi defe da ngay delloo njukkal samaam di ko delloo wane cër bi ko sëñ Tuubaa defal moo la indi magal gi fii kon nag nee na mi ngi lay ñaanal bu baax di sant ànd koog njabootu sëñ Mën Jaay Jóob ginnaaw loolu nag nun ñii nu yónni nag danoo tuut lool ci mën a wax ci jataay bu mel nii ndax ay kilifa rek a fi nekk waaye nag taalibe bu ne ak taalibeem ci sëñ Tuubaa mi ngi mel na ndab luñ sukk di lekk kenn ku ne nag na nga cay lekke moom yaa ko xam lala la cay rek it yaa ko xam kon lu fi wax ci sëriñ bi waxuñu ko ngir danoo gën a xam baa xam waaye fi ñu bi ak fi ci toll rek dañuy wax ndax sëriñ seexu naa wax na ci sëriñ tubaa loo xam ne buñ noppi woon yemale foofu magal gi doy na kenn koo gi mu wax sëriñ Tuubaa nag ne suñ boroom a ko kennal loolu moom lu leer naññi la kon foofu lañ war a dellu xoolaat yëf yi seetaat pour yi teg suñ tànk li yàlla defal sëriñ Touba te sëriñ Touba defal ko ci mag ñi nu xam loola gëstu ko donte daay réer nu indiwaat ko bu dee dafa dafa demoon nu indiwaat ko bu réer yi ñu xool ko indi ko teg ko ci jataay bi ndax lu yàlla bind ci àddina bi def na ci ab lim bam def sëriñ Touba ndax bu dee ay yonent da ngay lim ba doyal bu dee ay téere nga lim ba doyal bu dee asamaan nag suuf lu mën a doon daal da ne benn ñaar ba mu des sëñ tubaa ndegam yàlla dogal na nag lépp lu yàlla ma a bind sëñ tubaa la ci mas a bind kenn mës ta dégg ñaareelam ci àddina te jot nañu deesu ko dégg sëñ tubaa moomoo ñu ci boole nag moom la war a xoolaat lam nekke woon ak fam nekkoon ak ca lam ne woon ñu jëm ci na ca njaareem gi yaakaar naa mat na ci mas manis na ko cee waxtaane ndax sëñ mën jaa jóob sama am jiitu na sëñ tubaa njaareem benn at mbaa ñaar mbaa lu ko soog a ñëw njaareem nekk na feek moom itam juróom fukki at ak juróom ñi fi nekk ak moom lépp ba sëñ bi soog a dem Touba lu jiitu loolu itam mu ànd nag borom gaawaan amoon na nag ak doyloo koo xam ne tawfeex la woon ci moom ndax sëñ Touba doyloo woon na ko ba ne woon sëñ gaawaan sëñ mën jaay Jóob mii kat jox naa la ko ngir lépp looy defati ci àdduna na nga ci diisoo ak moom loolu tawfeex amoon kon nag loola mayoon na ko nun ñii di ay gone sax am nan luñ mën a wax ci sëriñ bi loo xam ne du neex dindi ndax moom fekku nu fi ay doomam moom ñëpp nu fi fekk te dañ daan wax ne sëñ mën Njaay nee na sëñ Tuubaa nee na waaye benn ba am na benn lu mu wax loo xam ne noo ngi la koy digal di la ko dégg mu jóge ci sa maam ñu fas ñu bëgg nga jàpp loola te te te dëgërloo ko ndax sëñ Tuubaa de képp ku koy wooteel ndegam ñiy woote ci sëriñ bi di fo ñoom la sëriñ bi di wuyu ba ba nga defe ne lii ñu nekk kenn mun taxam xam lu mu doon kon ñiy woote ci sëñ bi di dëggal moom taxul ñuy wax kon sama am nee na sëñ sëñ mos naa toog ak sëñ Mën Njaay mu ne ko Mbàkke day sëñ Mën Njaay ne ko Mbàkke da noonu am lu nu bëggoon a laaj ko am nga ci ndigal mu ne ko lii nga nu mu di ciyaax mu nuru ak ñu tudde ko ak ciyaax fii dafa neex lool tey jamono di dox nu yaakaar ne gone yi dañoom buñ dikkee dañuy cop soppi ceex gi ngóor sëñ Tuubaa ne ko laaj nga lu mat a laaj waaye dees na la tontu ne ko Madu Njaay mu ne ko Mbakke mu ne ko bu boobaa ku soppi sa ceex ngóor buur ñu def say taalibe ay dag ku defub sëriñ nag ñu defal lay donga ne ko xam nga nu muy mel mu ne ko ah dañ doon laaj da Mbakke te bëgg a xam mu ne ko bu rakku dagam de buñ bokkee ab jataay toog lu mu ko sant mu def ko lu mu ko digal mu def ko ba ci rey nit sax boo ko def loo mu def ko waaye ngëm taxut mu di ko def da koo ragal rek bu buur dogee ci ni jógee ci lal bi dugg ci wana wi dag ñeme naa toog ci lal bi ñeme naa wax ne buur li mu doon wax du dëgg ñeme na ko wuutu ci këram ne ko sëriñu ko taali bi nag xam nga nu mel mu ne ko mbàkk dañ doon laaj rek de mu ne ko boo defee ab sëriñ ñu defal la ay donga boo ko joxoon sa doom mbaa sa sa soxna jox ko aw fas mu war ko yóbbu ko ci dëkk buy ñëw day womat fas wa ngir war maal kon képp ku def ab sëriñ des na la defal ay donga ku def buur ñu defal la ay dag te yëf yi jaxasoo na lool Mbàkke kon sa maam nee na na nga def sëriñ ñu defal la ay donga wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa xayra xadimihi ajmain wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi fi teew yépp noo ngi leen di jottali ak nuyoo bokki taalibe yi góor jigéen mag ndaw gan ak dëkk noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Serigne Saliou Mbacké mi fi nekkal Serigne Afia di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ba li mu ëmb yéene liggéeyal way juróom wa di sëriñam sunu borom kàttanal mu jëfee ku nu kawee njortam te ñu ànd ko ak moom di leen nuyu ci turu xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké mi Serigne Touba di ko ñaanal pas-pasam ak yéeneem ak bëggam yàlla na ko yàlla mottali nu kawee njortam te ñu ànd ko moom di leen jottali nuyoo bu tukkee ci sunu kilifa muy sëriñ abul barak muy sëriñ Mbàkke Bousso mi fi toogal Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem njabootug sëriñ Falilu Mbàkke gépp leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi te wéral leen di leen jottali nuyoo bu bàyyi ko ci sunu kilifa di sëriñ Murtada Mbàkke mu Cheikh Mamadou di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral moonu fi yebal si boole nu ak taawam muy sëriñ mu Moustapha Mbàkke mii ma dendal ngir ñu ñëw jëmmal si ko ci bis bu tedd bi nga xam ne dañu koy def ay bokk di ko def jëme ko ci ku tedd muy sayxul xadim radiallahu taala yàlla mu yàlla fayal nu kon nuyoo bi noonu ci tàmbalee sëriñ Seexuna mu sëriñ Moustapha mu sëriñ Saale di ci teg sëriñ Muudu Mbàkke moom sëriñ Murtada mu Seex Mahamadul Fadal di ci teg sëriñ Moustapha Mbàkke mu sëriñ Abdul Wuddóor delsi ci sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo woote bis bi di nuyu Samba Awa sunu xarit ak sëriñ Mourtada mi yoroon kàddu gi noo ngi leen di sant di leen gërëm nuyoo bi nuy andi nag li tax nu boole ko jullit yi nu fekk ci jotaay bi yépp jotaay bi jotaayu jullit la te sëriñ Touba sunu yaakaar yi tey ëllëg gi ñu dajale fii dafa woo sëriñ Malick Bassine si te ñu bari xam nañu ko ci keppaaru Sayxul Xadim mu doonoon ku dëggal ci sëriñ Touba nag ba daan wax ci làmmiñam ne moom bu dajee woon ak sëriñ Touba du topp kenn masoon a waxit sayxul xadiim ne ko dama dégg ñu ne yaa digal ku wattu alxuraan muy naafila ñaari rakka ñaari isib ak nisif di ko waqaf di ko bëccëgee ak di ko naafila bu guddee mbàkke bëgg gu la bëgg nag tax ma saxaloon ko doon la laaj ba xam ndax danaa ci am yool Sëriñ Tuubaa ne ko yow de li nga def mi ngi mel ni for boo la dajeeg borom bu ko neexee jël bu ko neexee baag yow waaye yow de alxuraan joxees naa ko mu ne ko mu mbàkkee nees ko nu ma koy def nag mu xanaa di jàng rek foo yam tey nga tàmbaleel moo tax sëriñ Malick musta ñemee ub kaamilu alxuraanam bam jeex ba bi muy génn àddina jukki bi daf koo génnee laf ci pegg bi bañ ko ubbee fekk nañ ko kooku nag la sëñ Tuubaa ci kanamam mu ñëw mu ne ko firil ma innamal mu'minuuna ixwa ñu ko nekk fi sa kanam di wax alxuraan mu ne ko wax ma ni ngeen ko dégge mu ne ko ay teggin mu xam ne da koo bëgg a jàngal mu ne ko ndigal la mu ne ko àmbàkke ah, indamal moo doon ixootum dégg ñu ne ñi gëm ñépp ay bokk sëriñ Tuubaa daal ko kon ñi gëmul nag ah, ko loolu day taxoon may wax mu ne ko loolu soo ko waxee yàlla day manqué te yàlla dafa mat mu ne ko ma mbàkke kon nu nuy wax mu ne ko daga naa innamaa way bokk ay bëgg yépp ixootum kon ñun ñii daje ci tànt bi yépp tey di ay jullit bokku bëgg moo nu boole te bokku ak bëgg nag ak bokku jublu ak bokk pas-pas moo di ak bokk yonent bi sallallahu taala alayhi ba muy def xasatul badar ku ne xam na ne Ababacar Sadiq ni mu mel ci rasulullah yi ñu bari xam nañ ko li mbokkak moom xam nañ ko njëkk gee gëm ci ndawit xam nañ ba dëggal googu waral Ababacar Sadiq waaye keroog ba ñuy def xasatul badar Abdourahman ibnu Aboubacar ma nga bàyyi baayam Ababacar Sadiq ak rasulullahi mi yàlla ni ànd ak Abou Jahlin jàkkaarloog ci yàlla yónni ak abaayam Abdullah Ababacar Sadiq am pas-pas balaa jant beesoo mu rey leen mbaa ñu rey ko te ñoo ko jur ñàkk a bokk bëgg ngoog ak ñàkk a jublu ak ñàkk a bokk pas loolu moo waral wolof di wax ne diw ak diw ñoo bokk ndey ak baay waaye dañoo mel ni ñu bokk fanaan biñ xëyee ku ne daa dem ñàkk bokku bëgg la ak ñàkk bokku jublu ak ñàkk bokku pas-pas kon nun ñi daje fii ci tant bii tey ci kanam Cheikh Moustapha bokku ak bëgg ak bokk ak jublu ak bokk pas-pas moo nu bale fi moo nu dajale fii nu toog nu fii sant ku mat a sant di Seyxul Xadiim sëriñ Seexu naa wax na ko daf ne man de wàccoon na ma ak yàlla ñu ne ko Mbàkke loolu jafe na lool mu ne lu mu mës a digal def naa ko ñett rek dox sama digganteeg moom mooy lu ma mës a digal rek def naa ko musuma séen ci lu may tere lu a dogal ci man neex na ma. nit yàlla ku sëñ Tuubaa masa dajeel di wax ak yow sa digganteeg sa borom lu mu la loo ko wax rek danaa ko ànd waaye saa yu ngeen ci tàggoo bu ne lee anal bu yàlla dogalee noo cay def nga ne ko dama koy muñ mu ne la waroon nan maag yow man bu yàlla dogalee damay neex ñi xam neex nag ak muñ xam nañ ne dañoo dend waaye bokkuñu su yàlla dogalee damay neex mooy sëñ Moustapha bëggoon laa dóor amul yar bu mu la dóoree nga dem wutali ko yar bu baax bu mën a dóor lool andil ko ko ngir mu dóor la ci mu xàcc loxoom li mu bëggoon a xàcc kàttanam mayu ko mu yëkkati ko ni mu ko bëggee sa kàttan mate ko nga yëkkatil ko ko ba mu àgg fa mu bëgg nga wàcceel ko ko nu mu ko kawee njortam ngir bëgg ni mu ko bëgg mu amee ko ni loolu mooy bu yàlla dogalee damay neex sëriñ Touba nag waxu ko ci làmmiñam yam ca daf ko pratiquer daa sañ ci Daaru Salaam daaru jóge Daaru Salaam dem Daarul Manaan maam maami jëmm ji sëriñ ma Mafos maam Thierno Ibrahima Faty defaral ko kër gi diir bu gàtt kër gi di lakk donga yi song kër néeg sëriñ Touba bi baddi per yi génn bagage yi teg ci biti ndax bañ sawara wi agsi ci moom lakk ko te boobu sawara wi agseegul ci néeg sëriñ Touba sëriñ Touba topp ci seen ginnaaw lu mu àttan ca bagage yi moom fab ko sànni ci sawara wi bi sawara wi giimee mu dajale taalibe yi ni ngeen def daanne xanaa li ma def lay jaaxal na leen lool ñu ne ko mbakke sunu ko sañoon daañu ko laaj mu ne dama doon dimbale sama borom ci li ko neex ndax coobaree ma tax kër gi lakk kooku mooy Seexul Xadim mu bàyyi ko darul man naan dem Touba nii ko Serigne naa waxee léegi 1895 ca koor gi fukki fa nu mu jëlati kaaf mu tàbbi ci jàkka ji wéet ak boroomam xaatabanteeg moom ñaan yàlla yan bi mu agsi ci kawam mu jël ko liggéeyal yàlla sun borom yebal Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu fekku ci biir jàkka ji ne ko sa borom ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yan ñu ko yàlla fayal toog na fii wax ñu ne ñu yetti sa borom nee rek la ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na. yan bii nga koy laaj nit yàlla ku ma sa gis bëgg nga ko di ko laaj waaye bu la laajee bu la wanee natt yi mu koy jaayee doo ko jël Sëriñ Tuubaa ne ko ruugi laa sëkkul ak jëmm ji bay xam lu ruugi di fekki ak lu jëmm ji di attan waaye loo xam ne ruugi dana ko fekki jëmm ji na ko attan sama jom mën na koo dégg daal ndax bu ma la ko tegee ci kanam kanamam mel na ci yow noo xam ne su ma la tegee nattu bi mu fekke ko dana ma ñaan ma teggi ko te su ma ñaanee ma teggi ko danaa ko teggi te su ko teggee li nga bëggoon doo ko am ndax sama diggante ba Sëriñ Tuubaa waree la mu njëkk def mooy sol dàllam seeti nijaayam sëñ Buso bi waxtaan ak moom ca loola ba déggoo ca ak moom mu ne ko man jaay naa sama bakkan lislaam bu yàgg moom taxoon ma woon askan wi ànd ak ñoom dem wuy ji mabba joxu ba ci xare ba mu doon woote ca Saloum kon doo bokk ci man doon ci war a yëkkati lislaam sama bakkan di ko fekke loolu moo génne sëriñ bu soobi àddina tawat ci génne sëriñ bu soobi àddina bàqu saaw moo ko daan faj saa ko ma saa dal bu ko joxee bàqu saaw bu ko jëfandikoo rek daal di wér waaye ba mu wax nañ ne bàqu saaw gi ñii nañ daa daa réer waaye lu ci amatul ci kër gi ba ko tawat ji daanee njabootam dem nañ ca àll ba rëbbi ak saaw ba andi ko tam joxaat ko ko ne ko am nañ bàqu saaw mi ngi nii sañ bu soobee ne déet sama bàqu saaw ga xam naa na ma ko amee woon waaye yéen seen bàqu saaw gii xaw ma nu ngeen ko amee te bëgg a dund lu ma tax a def sama biir bi lu ma xamul lu mu doon génn àddina lii nag Mbàkke danaa ko faral di wax sax ci barab yu bari su ko bokk yi dajee ba mu laaj ko danaa ko wax waaye ba ma ko daan wax nag ñi moom boo nee ndakaaroo neex Cees ne man la bëgg a xas te fekk loolu taxu laa jóg dangaa ngaa wax neexatu Dakar nga xam am ci ñoo xam ne dañ koo déggeewu nu bokkut ak ni ma koy waxe ñu yónnee ci man am ku yónnee ci man di mbokk ne ma wax ndaw la ñëw ne ma mbokk la moom it jiw nee na daa bëggoon loolu ngay wax ci sëñ bu soobee ngeen ñëw ngeen waxtaan ci ne ko ku la wax loolu mu ne ma diw ma ne ko ah man loolu du ma ko defi diw maa ko mag su ma soxlaa moom mooy ñëw ci man waaye man du ma ko wuy ba ko ñaaree moo dégg ci samay wax lu mu xamul lu mu doon na ñëw ci man laaj ma ko waaye du ma dem ca moom ne ko li ma wax loo ci wax googu ñàkk fay di ëwma fa la yëf yooyam nag xaw ma wax nañ ko ko xaw ma waxuñ ko xaw ma jàpp nañ xaw ma jàpp ñu waaye déggatuma ca dara man ba yàlla dogal nag yàlla mii àtte mbir ak jëmmi ki tax ma di ko wax ñu woote màggal ak sëriñ bu soobee ca Mbàkke Bawol saa bu ñu gàmmoo bis bu dellu si daañu fa dajale askan wi ñaanal sëriñ bu soobee ak maam saa ñu jox ma micro central comme ni Mourtala doon def léegi kilifa ku war a wax maa ngi jox ko kàddu gi wax li muy bëgg a wax ci ñi ma ko bokkal booba sunu baay bu ñuy wax sëriñ Abdou Salaam Bousso yàlla ñu ko yàlla fayal mooy xalifa Mbousso bi mi ngi toog ma waxaat sa wax ja ban dem ba ca déwén sa màggal gi dellusiwaat ci takkusaan ñu war a génnaat ci cérémonie ba waxaat bi baay Abdou Salaam waajee bay bëgg a génn yónnee ca tànt ba di ma woolu ba bokk yu bari yëg na ñu ngi may woo. man damaa génnoon bi ma ñëwee lenn ci bokk yi ñoo ma ko jottali sëñ bi yow lay woote day bëgg a génn ma ñëw fekk Baye Abdou Salaam Bousso solo ba taxaw ci néeg bi ma ñëw nuyu ko ne ko Baye Abdou Salaam danga ma doon woo mu fab loxoom teg ma ne ma ne ko waaw mu ne maal doon woo koy wax janga fi waxoon daaw ma ne ko waaw mu ne dama koo joxoon sëriñ bu soobe di ko laaj ba xam noona la am déet sëriñ bu soobe nag nee na noona la nee na nga waxaat ko ma jiital ko moom Baye Abdou Salaam ba mu toog ci photo bi ma jàkkaarloog ma jàkkaarloog sëriñ Moustapha répété waat wax ji nag ne leen léegi ndigal laa ci am kii moo fi toogal sëñ bu soobi ku sëñ mu ndaxaane woon sëñ tubaa nee ma ci yow biig yaakaar naa da ko nangu boobu moo fi sëñ bu soobi ci kaw suuf ma ne leen mi ngi nii toog nag nee na li ngeen li ma doon dooyee ba ngeen di ma jottali booteem nee na wax jama fi waxoon daaw da ko joxoon sëñ bu soobi di ko laaj ba xam noona la am déet nee na sëñ bu soobi nee na noona la waaye yëmu ca nee na nee na naa tax ma waxaat bi satante bi maa ngi koy jégg kon sëriñ Moustapha mii woote ko jox ci sëriñ Moutala Fadilu ab cër xam lim bokk ak moom xam fim leen teg ak nim leen jàppe sëriñ bi amoon yéene yi fekk si jotaay bi waaye ku ne xam na ko ci nangu kilifteef mooy doxal ay kilifaam seen yitte ñun noo koy doxal ay yitteem moo tax bi loolu agsee ci moom mu demal ay kilifaam ca yitteem yabal suñu ci tey boppam ji nga xam ne daa jëm si ci mbokkam mii di sëriñ Moustapha wax nañ ko fi nag bés bi mat naa ñëw ndax fu ñuy tudd sëriñ Afi fu mu doon lu mat a fekke la kër gaa ngi nii di kër gu mag sëriñ Afiya fii la ko sëñ Touba dëloon mu jóge fi dem sañ ci tooki gee mu daan yónni sëriñ Modou Farmata ab taawam muy dem di ko wooyi tooki ngir mu ñëw wuy si ko ci kër gi te sëñ Modou Farmata dafa asma woon te booba waruwaay amut day dox saa bu ma saa dem wooyi baayam rek bu ñëwee asma bi daaneel ko ñu ko sëriñ tubaa mu dellu waxaat sëriñ Afia sëñ Touba daawul wax sëñ Afia de <coughs> Ahmadou Ñang la daan wax sëriñ bi ne Ahmadou Ñang toogal fii fi man jógewaat na fii dem ba Kajoor yaakaar naa daqaar gam daan jàngalee alxuraan am na ñu fa teewul sëñ Tuubaa ko yónnee yu waat woolu jug këram gii biñ nattee njaareem la ko kër la ko mbedd yi xar waaye ci biir kër gi la sëñ la sëñ Aafiya dëkkoon sëñ Tuubaa ko dëloon ci biir kër gi ne ko Aafiya mu ne ko Mbàkke mu ne ko nit mënut a ñàkk seere digganteem ak boromam lii may jëfal sama borom damaa bëgg nga toog fii di sama seere moo tax keroog bi mu wàccee ab liggéey sëriñ Modou Sa Mbacké mii Seyxul Xadim yóbbu baayam Seyxul Xadim sëriñam ca Touba ñu denc ko baa àggal jël siwaat fii ci kër gu mag gi ci a ci ci bañ toogee mbooloom lépp toog comme nii ngeen def sëriñ Moustapha daa jóg ne ko bàyyi afiya mu ne ko Mbacké mu ne ko yow mi sëñ Touba waxoon ne yaa koy seere jugal seere ko ci kanam mbooloo mi te ñaanal mbooloo mi yewi leen bés bi mat naa fekke wax nañ ko fi léegi ne maam Anta Ndiaye lépp moom wax nañ ko fi léegi ne moom la maam Mor Anta Sali dencoon waaw ndax maam Mor daa ñaani woon maam Anta Ndiaye Mbacke déedéet maam Anta Ndiaye Mbacke astawaalo Mbacke la tudd maam astawaalo Mbacke ma ca naaweel doomi Ahmadou Soxna bu sa doomi maaram moom lañ ko tudde magama moom lañ ko joxoon moo ko yar moo ko jàngal këram la bàyyi ko woon wuy sëñ Mor Anta Sali mu ne ko dañoo bokk bàyyi te ñu wax ne damay am gan tey mu ñëw nga bëgg nga defal ma li ab jigéen di defal càmmiñam ci bis boobu bii muy wàccee li ngeen ko xam ne yéen mu togg ay reeram def waataayam yëpp ba guddi ga màggat ndaw waru fas ci jamono jooju daw dikk wax sëñ bi ne ko sëñ Mor Anta Sali ne ko gan gi fomm na mag ñe ne ah kon am na lu xew de ñu ne ah mu ne ah sëñ Mor Anta Sali kenn tas yaakaaram comme maam Anta Ndiaye mii kat ab jigéenam la waaye araamu ko nañ ko ko fasal mu toog fi di soxnaam waaye kenn dox tas maam Mor Anta Sali yaakaaram ñu wëlbati ko jublu penk fasal ko maam Mor Anta Salim maam Soxla Anta mu raame boppam dugg ca biir néeg ba kenn wàccewu ko reer ay reeram sotti sànqalam ci kër càmmiñam doon soxna si maam Mor Anta Salim ak ko tabbal kër maam jigéen ñaa ngi nii nag ay jigéen a leen jur man ñuy laajte seen maam képp la ñuy dégg ñu ne ndonoon mooy lan moo defoon loolu ci biir kër sëñ Mor Anta Salim askanu Mbàkke ngi dox boobaak léegi waaye kenn ñaareelu ko lu ne nag danañ tiisub soxna say ba mu soloon keroog jàngi sëñ Moustapha yi xaw ma fu mu ko jëndee waaye dinaa ko takkaay yam yoroon keroog xaw ma sëñ Moustapha da ko yóbbante ji da xaw ma Dubaay la ko yóbbantee waaye dinaa ci wut chambre à coucher sëñ Moustapha bi mu ko wutal nangam nangam lu ne danañ ko wujjee nag waaye ba mu des nag roy la nga xam ne dañ ko fee fekkoon tamit loo xam ne ña ko defoon am nañ ca nag maamanta Njaay Mbàkke bu yemoon ci loolu ci kër càmmiñam li liggéey bu rëy boobu ngir yàlla mu doy ndax Anta Njaay Mbàkke Ibrahima Awa Ñang maaram Maam Mor Anta Sali Mbàkke Balla Isa Buri maaram maam jaara buso mam jëli woon ci kër astawaalo mbàkke andiwaat ko ci kër gi ahmadou soxna buso astawaalo ahmadou soxna buso maanaam kon yaakaar naa ne loolu buñ bokkee génn kër la gën a jafe mu def ko jiitu ci biir kër jiitoo ca noona waxtu woowu jot mu wëlbatikuwaat ñaanaat sëriñam ne ko damaa bëgg nga wutal ma rak li jigéen ñi gën a bañ tey muy wujj moo ko ñaan noo ngi jégalu bu baax waaye dama leen wax dama leen a junj lu am solo te jamono jii nu toll li sëñ Amdi Jóob wax fii ci jotaay bi mooy dëgg nañ fàttali mag ña fa ñu jaaroon ak lañu doon def ba am li ñu am sunu génération bi dundatuñ loolu kon xamuñu ko buñ toogut di leen ko wax fan lañ koy jële koo ci wax rek mu yàkkamti ci tey àddinaam rek ngir bëgg a dem lenn lu koy jëriñ du ko jéem a wut fenn amul benn njëriñ. su maam Anta Ndiaye Mbacke doonee ci askan wu bokk mel wi mbokk doon ki mu doon ak si ci kër Mamour Anta Sali war fee liggéey la yàlla liggéeyee fi noonu mu fi liggéeyee war a am rak dikk ñaan sëñ Mor Anta Sali ni ko wutal ma rak mu gàntal ko ba muy ñeenti yoon ba ko juróomeel mu door koo tontu ne ko soo demee ba mu ne ko soo ma joxee ndigal mu jox ko ndigal mu sol dàllam dem kër Maam Asta Walo Mbacke jëli fa soxna jaara kër ba mu ñëwee mu ne ko yow soxna jaara sa dooma ni ma ko juree nga ko juree ngay ndeyam ñu tuddee ma la may sama ak yar la nga jóge sama kër gi dem ci néegu sëy amul lu may def lay fab soxna bu sëy toog sa ginnaaw mu mel ni faa doyut man de loolu duma ko man maamante njaay jooy ndax mag ñi yaroon nañ seen kàddu yar goo xam ne seen njaboot bu ñu waxee ñoom benn baat ñu niw ñoo tontuwaat fii am ñu ni la ñun ngay waxal tey ñu teg ci fukki baat ba mu jooyee ba jooy métti soxna suñu ko defal ne ko mamante jaay lu xew mu ne ko dëgg la soxna jaara sama sama sama sama sama dooma waaye noo maase noo daa andi jàngi noo daa andi julli ji noo daa andi liggéey yi lu ñu ma sa def ci baax maa moom noo ko ànd mu sunoo tàggoo ci dara ma gis tey fu neex a liggéeyal yàlla ma ne ko jël si ngir ñu bokk liggéeyal yàlla nga dem ko tere mu daal ko ne soxna bi sa go fal mu jàpp ci loxol soxna jaara andi ko ci kanam baayam sëriñ Mouhamed Bousso mañ doon wax ma Bousso Awa Mbaay ne ko fasalal ma ko ma mu doon sëli mu jublu rek laaj dara daal di ma mu doon sëli wala di jàkkaarloog doomu soxna jaara di ko dénk ne ko soxna Bousso maa ngi lay dénk soo demee ci kër googee na nga góorgóorlu roy astawaala Mbàkke sa ndey nga bàyyi ci kër gi soo ko defee da am lu baax kaddu gàtt na waaye lépp a ngi ci biir ci gàttal waaye maam jaara benn kaamil alxuraan képp la yor ci loxo mën ko yóbbuloo bi baayam daanelee kàddu mu ne gayi kaamil gi saar kàddu baayam yem ca aaya ba makkaana muhammad abba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xatimu nabiina mu laa di jooy bàyyi na ko lu xew yaa ngi jëm te maa ngi lay dégg lu baax amoo la may tontu lu jooy su fekkee dag ma nar a gàcceel toogal ba ne dem moo ma gën dem ko bàyyi ko looy jooy mu ne ko wax ji laay jooy wax yàlla suñu borom darul deñ suñu borom mi wax lii waxam darul deñ te waroon na maa fekk jamonoy aminata moo ne ab yonent dootul wàcc ginnaaw rasulullaay man waroon na maa fekk jamonoy aminata ba am ma am rasulullaay ba fu mu amee ma am rasulullaay ma mu ànd ak maam Anta Ndiaye ñëw kër sëñ Mor Anta moo tax woykat ba di la wax naa bu saa xëy nuy ji ay dëkkandoom nuy ji njëkk njigéenam soxna Anta Ndiaye mbokkum taala Anta ma maharam loola waral sëriñ gaawaan doon rakk ci bamba di jaamam jaam sayir la jaam baati moo waral bari xaalam wax jooju jëf ji moo ko waral mu ganale ko wëlbati ko woo ko ci waxtaan mooy lan am na wujj lu des wujje mu ne ko damaa gis buur yi mu dëkkal bala ñoo xare ji dañuy woote ci penc samp ay tay ak i ndënd ku war a ànd ak buur bi xare ji da ngay séntu xasal ko la nga war a def ca buur ba mu déggal ci noppam ñu tëggal la nga dem toog ndeg ñoom ñu wut addina ñooy def loolu sàkkaa ñu ñu nekk ci kër yàlla goo xam ne mën nañ fee amee lu ne ma bëgg nu xas ma ak kenn ku ne jan doom ngay am fii kenn amagul doom jaar ne ko man yaay sama kilifa waxal ba noppi mu ne ko xas naa ci kër gi danaa am lu mel ni jant ak weer maam Anta Njaay soxna jaare ne ko ci war ma ji dox sama digganteeg yow dama bëggoon nga may ma ba ëllëg ma door laa tontu mu bàyyi ko ba ca ëllëg sa ca waxtu mu sukkaat ci raam raam ci kanamam ne ko sëriñ sama dañoo waxtaanoon démb nga am loo ma wax loo ma waxoo det mu ne ko dama ne la xas si kër gi maa yow kenn ku ne kan lay am mu ne ko nga waxoon ma mu ne ko xas naa fi ne danaa fi am lu mel ni jant ak weer soxna si ne ko xas naa fi ne danaa fi am asamaan suñ demee ba taxawal jotaay bu mel nii ñañ fa dajeel war nañ leen a jàngal ka tax ñu mën a jot ja daje ba jot ay jotaay jotaay bu mel nii ba buñ ko yóbbaalee muy seen njariñ ba ba ba déwénati ba kër ga amee ñeent leetar bu mel nii ba fi njëkkoon a ñëw dafaa ñëwaat suñ moo ant seen jàng ko woo ko ba mu ñëw mu ne ko leetar bi dañ ma wax dama ci yót gan waaye dama koy delloo mu ne ko yow doo delloo teraanga mu ne ko duma delloo teraanga man yor naa kii mënut a doon ab taara bu ñëwee ab la war a doon te kii mënut a nekk ab taala ndax yor naa ñeent léegi damaa bëggoon delloo kàddu gi mu ne ko doo ko delloo mu ne ko loolu damay def mu ne ko ni ngay def man nga koy laaj man mi borom kër gi mu ne ko waaw mu ne ko man ngay bàyyi yoratoo ma jan jigéen moo ko sama borom këram fii man ngay bàyyi yoratoo ma du ma génn kër gi du ma dem fenn maa moom kër gi uuf njaboot gi fii lay toog waaye danga may bàyyi yoratoo ma te moom mu ñëw liggéey ab cëram waaye yow doo delloo teraanga mu ne ko waaye awma lu ma ci def mu dugg ne gëm jël ay takkaayam boole ko addiyam andi ko jox ko señ Mor dañ ko ne am naa fi sàqum ñeent mu fees dell dugub mu ne ko waaw mu ne ko boole naa ko sama sama sama buum sama buum ak lii ma lay jox nga def ko ci mu ñëw liggéey ab cëram waaye duma del doo delloo teraanga kon yaakaar naa kooku ku toog ci jotaay war nga faa yóbbaale dara sëñ mo sëñ ma foos jërëjëf jotaayu sëñ Afi maam Thierno war na ñëw Ceerno li mu defal Sayxul Xadim te ñu amul lu may Sayxul Xadim tant tant mel nii ne dañuy sant Sëriñ Tuubaa maam Ceerno yu rafet li ñu wax léegi ne ba ñuy dem Ndar waaye li gën a garaaw dem Ndar gi garaaw na lool ndax waxtoom koy def néexut def waaye li gën a garaaw mooy ba Sëriñ Tuubaa liggéeyee ba ñu bisiwaat ba ànd ak Ceerno divers bagage yi woon bayam ci ataayam ja jëmm taal bàyyi ko fi ataaya jooju agul Sëriñ Tuubaa bàyyi ko fi dem liggéeyal yàlla Sëriñ Tuubaa tiim baraada ba naan ko Ceerno lii lu mu doon te xam ne lu mu doon de mu naan ko Mbàkke mooy keroog bi mu ñëwee ci màggalu sëñ Moustapha ga bañ lay attaayal bañ tàmbalee attaay ñu def nangam ñu def nangam ñu def nangam suñ ni ko ah ok fàttaliku naa ko waaye Ceerno su ma sekkoon ne yow yaa dem bàyyi ma gannaaw de defoon naa ne du ko mën a nii waaye Ceerno lii nga ma defal de defal naa la ci su sama mbir sama mbir sëñ tuwaay wax de bu sama mbir demoon ba ñaar képp di ko def si ci àddina kenn ko ci yow lay bopp war nga fee teew sëñ Abdourahmane maa ngi lay nuyu damaa bokk ak moom nday moom ndayam sama nday la sama bàjjan ka jur waajuram bu jigéen ak ka jur sama waajur bu góor ñoo bokk ndey ak baay sëñ Mor Mbàkke de ak Astawaalo Mbàkke bokk ndey ak baay Astawaalo Mbàkke moo jur sama sëñ Mor a jur yaayam sëñ Mor ak Astawaalo Mbàkke Njaay ma leen jurit Amina Njaay bañ bokk ak ndey ak baay Amina Njaay jur sama maam Abdu mu jur sama ndey moo tax muy ndey di bàjjan maa ngi lay sant di la gërëm di la nuyu bu baax di la ñaanal yàlla yàlla yàlla taxaw tu sàmm leen maa ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp bàyyiwuma kenn euh, sëriñ bi di sant bu baax Samba Awa Ndiaye ak Moutala ñii dafa am lu sëñ Touba sama am defoon ci ñoom warisu ko sàggane sëñ Touba dafa yendu jaañ gee ñu denc sama Mbacke Anta sa wajur Mbacke Anta Mbacke Anta moom Mamour Anta Sëñ ñaañ googee lañu ko denc paataar la wàcceeb liggéey Serigne Touba moo ñaan sëñ Mor Anta Sali ne ko Paatar dëkk bu ndaw la bëgg mu ko fiy denc muy wéet dëkk bi tas muy wéet damaa bëgg ñu yóbbu ko Njaañ dëkk bu mag la ñu indi ko Njaañ sang ko ci suba waajal ko jullee ko sang ko bëgg koo jël denc ko mu siis Serigne Touba yëkkati loxoom ne nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko Serigne Touba ñëw sëgg ci boppam déeyoo ak moom sëggi taxaw yëkkati ne dafa wax ne yi ñu koy bëgg a denc dañ fee fekkoon ñu ñu fi denc bu yàgg suñu borom da koy waral ku mu fekk ci armée yi ñuy jéggal la mbaa kenn du ko fi denc ah, kon nag wax ko sa borom yow mi déggoo moom sëñ Tuubaa toogaat ab diir bismillah ñu jëlaat ko mu suñu ay loxoom bàyyi ñu bàyyi mu dee si waat ci boppam sigi waat taxaw daal di wax ne dafa wax ne suñu ko fi dencee ba ba àddina tukki ay nit dañ ko fi fekk suñu waroon da koy waral koo fekk ñu jéggal la mbaa kenn du ko fi denc yaar yooyu lañ nangul Mbàkke Anta moomu nag moo waral ma wax la ne la Sëriñ tubaab bu liggéeyee liggéey bu toll noonu ci biir kër gi def fi lu toll noonu taxaw fi taxawaay bu mel ni bi mu fi taxaw su bis bu mel ni bii ñëwee mu dikk yendu njaañ teraanga yi fi ñëw yëpp muy ay addiya ci toole alarba lu mu doon genn gaal ba ga yemb mu war a gont ub gaal ga woo sëñ njaañ mi mu fekk si woon na ko joxal ma ko sa bokk yi lay sut baat xam nga woone sëñ bu sole moom daan joxal géwél yi mbaa joxal tëgg yi mbaa nangam ndax wóddul kàddoom te sëñ bi moom daa woddoon kàddoom ba ñi muy jàngal dañuy woddu seen kàddu njaareem gii toog na fi benn bis ab sàcc ñu waxu ko ci marché Ndumbe Jóob sëñ bi dégg coow léegi kër kër ji sëñ bi fëgg sëñ bi ne ana ko toll fii benn tali bi àgg suuf ne ko mbàkke noonu mu ne ko ana yëngu boobu yi lu mu doon mu ne ko mbàkke benn jaay yàlla la bu demoon fa ñuy wecci koo wërsëg ya mu yàkkamti wërsëgam ba jaawale koo wërsëgu jàmbur moom lañ topp di natt ay ba ca yaram di ko bénte moo waral yëngu bi tax nag sëñ bi waxe ko noonu dal di ko ne ma ko sa bokk yooyu sutbaat mu jox ko ñooña askan wu am nga kilifa seen kilifa yéen du fa ci ngoon sëñ bi gont mu agsi ñu ne ko yow kat teraanga ji sëñ Tuubaa ko jox waaye ñu wuñ ko woon a laal mbaa wax dara te ñëwoo mu ne ana sëñ bi ko joxe nag ñu ne ko dem na mu ne ah bala ma koo joxe nag dama cee dama koo topp ba jox wax wax ko benn baat door ñëw joxe ci digal waru fasam dabi sayxul xadim ba dab ko ba mu dabee sëriñ bi daal koy jaar ci wetu ndeyjoor sànni laa ni ko al asalaamaaleykum bi ne ko waaw mu ne ko ñooñu ma ko jox mbàkke maay seen kilifa yéenduwuma fi ma ñëw léegi ñoon ma teraanga ja ne yaa ko fa joxe ma ne leen ah, sëñ bi ko joxee nag ñu ne ma dem na ma ne bala ma koo jox ndigal yéen dama leen koo dabali ba jox ko genn kàddu doon ñu jox leen ndigal kàddu googu tax ma dab si la mu ne ko kàddu gi lu doon mu ne ko mbàkke su ma la nee yaa baax ndax da ngaa tabe bëgg dëggal baax ngay tax su ma la yaa baax ndax da gore bëgg dëggal baax ngay tax ginnaaw xas na nekk dëgg dama ci teg dara mbàkke yaa baax sëñ Tuubaa ni wël bit laaj façon moom joxoon ko baaraam bu tedd ba dal ko ne bëggoon a dégg kàddu googu tamit dëgg rek ama tax a tag sans fas bii rañaan jëm ci rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal kon ñu semmal nga gaay daa tëbal ba ñépp nooy nuur di jubal yaa di yóbbu àjjana maam seexanta yaa may ngërëm seexal ko may ko ay dërëm dongoom ya war ko ni gorom nga may ko caabi àjjana sa ñaaf ya yaa may ngërëm moom fa ñaari mi këram di jaamu yàlla tey gërëm nga may ko caabi àjjana waaw danga maa yàkkam alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina mawlana muhammad nabiyu bi wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallam mbokk yi ñu ngi borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu njëbbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ko feddali ci borom daarul ma wax ci nii sunu bunt ci moom di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ñaanal Cheikh Muntaxa Bachir xalifatuna am di tarixati muridiyya sunu borom yàggal ko fi te may ko wér moom njabootu sëriñ bi yëpp ak mbooleem taalib di ziyaare mbokk yi fi teew yëpp tey jël nuyoo bi di ci jiital kilifa jotaay bi di sëriñ Mouhamadul Amin Mbàkke di sunu wayjur di kilifa mbooleem ñi bokk ci waa kër sunu maam sëriñ Saalihu Mbàkke Afia moo njaboot gi yëpp di jël seen nuyoo di teg ci loxoom di nuyu bu baax Serigne Moustapha di ko siyaare bu baax di ko def wàccuwaayam di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te may ko wér ci barkeb Serigne Touba ba yéene yi nga xamante ne am na ko ci àggale liggéeyu Serigne bi yëpp borom defal ko ko mu ànd fekkee akuk tal te ñun ñëpp ñu bokk. di nuyu bu baax itam sama wëllëre sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ Moustapha Sade di sama xarit di sama soxla di nuyu mbokku taal bi fi teew yëpp di nuyu sëriñ Moussoube Mbacke sëriñ Moussoube di ko ziyaara bu baax itam tey rafetlu kàddu bi te di ko ñaanal di sàkkuwaat yi ci moom ñaan xam naa ne kàddu yi kàddu yi tënk rekk lay doon ndax jotaay bi xat na te yàgg na mu doon kàddu cant ak ngërëm sunu diggante ak Serigne Moustapha kàddu seere ndax muy man ak sëñ Fallou mi sama rakk ma àndal ak moom ak ñu mel ni ñun ñun ay banqaas lañ ci kër Serigne Touba. ndax sunuy maam danoo jëloon seenu mbokk ak seenu am-am ak seenu xam-xam ak mboole luñ mës a am jaaye ko jëndee ko taalibe ànd ak sëriñ ko muy sunu maam da ko tàmbalee ca Maam Mor Jaara ci maam Cerno Birahim ba wàcc ci seen Afiya bàyyi ma kenn ci kaw loolu itam mën naa ne sëñ Bousso bi mii tënk na ko sànq ci liggéey boobu jëf ju rafet ji nga xamante ne sunu maam soxna Anta moo ko ci jëf ba jël soxna jaar indi ko kër Maam Mor Anta yaakaar naa bu ma juumul itam ci taarix noonu yi nga xamante ni moom la sunu maam soxna Anta Ndiaye Mbàkke defoon dem ci kër magam mm-hmm. di sox di sunu maam soxna Sawaalo Mbàkke mm-hmm. jël fa doomam di soxna jaaro Bousso indil ko Mame Mor Anta Sali noonu yi la soxna jaaro roy def ko ba dem kër woy juróom wu jigéen di soxna sa Mbàkke jël fa soxna Faati Sa Jóob indil ko Mame Mor Anta Sali bu ma juumul ni mu ko waxee itam ca keroog ba nuy xas soxna Anta Njaay Mbàkke ne ko dinaa fi jur asa jant ak weer soxna jaaro fi jur asamaan su leen ëmb keroog ba soxna Faati Sa ñëwee noonu itam daan ko ko nettale daan na ko ñun ñaar de lii lan waxoon ne kenn ku ci nekk dina ko fi jur soxna faat yi sa daan ne leen kon man mii dina fi jur suuf loolu misaal mi mooy diggante sëñ Mbàkke Anta ak diggante maam Cheikh Anta kii mooy jant kee di weer Serigne Touba de asamaan ëmb leen ñoom ñëpp bu ngeen déggee ñu ne Serigne Touba mooy asamaan mboolem liy mbóotu xéewal asamaan a ko guux soxna Faati sa daan leen kon man maay danaa fi indi suuf suuf sa mooy Cerno Birahim Sëriñ Tubaa noonu te Sëriñ Tubaa firndeel na ko ndax bi ñu ci géej gi nee na ko na maay asamaan yaay suuf mboolem luy xeeti mbooti xéewal man asamaan maa ko guux waaye ku ci jot suufa la ko jox kon nag nit ñi ak ku mel ne sëriñ Moustapha taxawaay bi rekk lan war a am sëriñ bi ñuy am mbégte di la sant di la gërëm ci taxawaay bi ndax ñun lépp loo xamante ne dox nañ ko mbaa ñu jëf ko te nekkul ti loo xamante ni lu jëm ci yoonu ko tedd ki la ngir fas yéene koo liggéey rek wàcc nañ suma yoon kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla nga ko gën a mën yàlla la sa maam teg loxo ba mboolem liñ ci bëgg di ko ci sax nga ak diñ ko ci yaakaar ak mbokk taalibe yi nga ko ànd yëpp suñu borom defal la ci lu kawe sa jot yàlla suñu borom yàggal la fi te may la wér xëy na mbokk gi dëgg la waaye lu bari ci lu fi dajale say mbokk ak lu fi tee nit ñi bopp ba tey ci sa jukko la ndax ab judd li muy am am solo li koy ñoŋal taaral ba doomu aadama yi jàppale la sa judd xamal la carrément ne yow Mbàkke fii nga bokk ak jikkoo koy def jikko nag mooy tax a nite ndax ak ndof mi ngi tàmbalee ci jàpp ne yaa war a féete kaw ñëpp yaa war a yilif ñëpp wala yow képp la war a war maal waaye jikko ji nga am muy jikko joo xamante ne koo gis def ko ne sa bopp wooyefal sa bopp ñun ñi nga xamante ne nii bu ñuy xool ci mbokk ay doom lañ ci yow fépp foo foo nekk ndoog nga jàppee sa jëmmi bopp woyof googu moo la may mboolem loo am ak jikko jooju dafa am mag mu doon wax ne doomu aadama bu taxawee ci biiri nit yor ak mbaax ba nit ñi di ko jiiñu wàlliw mu gis boppam ba ne leen man sax ëpp naa wàllu yàlla suñu borom laa mhm. nit comme sañoo na doon sax dootuñu ko ko def dañ naan ak def mhm. kon doomu aadama day jël daraja ji ko yàlla jox mu xam ko tooge ko ba noppi ànd ko woyof koo xamante ne dana mës a maase ñëpp mën a ànd ak ñëpp ci kaw loolu itam ñun ñi nga xamante ne nu nu mel Serigne tubaab tey gii woote bi bala ñoo doon mën a xam suñu wuuteeg keneen ku dul ñun te Serigne Touba rekk tax mhm. politicien bu yàlla jox ay milliards te yàlla suñu borom foq ndombal tànkam tey jii toogoon fii bëgg mbooloo mu mel nii mën naa am mbooloo mu dul jeex mën naa am nit ñu dul jeex waaye qualité nit ñi bokk na kum ca joxul dërëm du ko fekk si ñun ñii nag koo woo mu wuy si bàyyi jotam bàyyi dara jaam bu ñëwee sukkal nu raamal nu summi seen ba xam ne summi seen daal bu nuy nuyu nuyoo leen lu dara te defaluñ leen lu ko jar te gënewuñ leen lu ko jar Serigne tubaa gën xool ci ñun moo tax ñu def loolu kon nag Serigne Touba mi defal loolee nga xamante ne jomb dana liggéeyam nday mayewu ko barke baay mayewu ko muur toll ni wërsëg toll ni Serigne Touba war na noo jaral lu dul moom te jamonoy tey ji da ngay gis ñuy tàmbalee yab yoonu murit ngay gis gone yu ndaw ñu tekkiwu dara koo xamante ne mën naa toog ci barab di lim juróom-ñaari maamam kenn du leen xam kenn du xam baayam buy tudd baayam fii bu suba kenn du ko xam hmm. nekk ci internet bi mbaa ci rajo yi wala ci télévision yi lu ko neex mu dëkk di ko yekk Serigne Touba te dara du ko ci fekk hmm. bi ci topp bu nit kenn ku mel ni ñun jógee taxaw di ko défendre lépp lum ci def bu ko police convoqué wala dig convoqué ko wala gendarmerie convoqué ko dara du ko ci fekk bu ko defee sunu kilifa yi maa ngi koy jéggalu ndax dongo du soññ ab kilifaam du diggal ab kilifaam waaye baatu lu ca yoon santaane nan ko def mi ngi bëgg a yàq yoon wi tribunal ak police ak gendarmerie lan jàppe yoon muy seeni projet de loi ba ñu bind ko di ci àtte doomu aadama yi tubaab ya nekk ci tugal ñoo ko bind du charia du lu yàlla santaane du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane du lu Sëriñ Tuubaa santaane bu fekkente nit dafa mën a taxaw ci internet bi di xas Sëriñ Tuubaa ak di ko yàq musuba bu taalibe bi Sëriñ Tuubaa yi bëggee taxaw défendre ko attan koo mën a duma mbaa ñu teg ko yoon ko yoon jàppee suñu kilifa yi daan la yoon santaane nan ko def su boobaa dañuy daal di àgg foo xamante ni bu ëllëgee keneen ku wax Sëriñ Tuubaa dara nit ñi maandu ci di ko seetaan te boobaa ñiy yëpp Sëriñ Tuubaa bi yem yoon ñu gën a bari te Sëñ Tuubaa kenn waru ko yàq lañu jaral suñu bakkan jaral na suñu bopp jaral na suñu ndey jaral na suñuy baay jaral na suñu lépp ëllëg a ngi si biir bu ñu ko saafarawul tey dana juri musiba goo xamante ne dana ko bëgg saafara te su boobaa dana trop tard ndax dana indi loo xamante ne musiba lay doon ku ne xam na ni jàngoro ñaari fan saafara ko moo gën a yomb saafara jàngoro ji bu mati at kon jàngoro ji nañ ko saafara tey lu ñu ci fekk ñu xam ne tey jii dana mucc ëllëg bu ëllëgee suñuy doom ak suñu njaboot duñ duñ fi fekk lu ñuy saafara ndax fekkoon lu ñu saafara waaye buñ fi nekkee di ko nabb nabal ngir kenn ku ci nekk di xalaat sa muccub bopp te Serigne Touba xalaatutoon muccub boppam di xalaat suñu mucc ñun ñi ndax la Serigne Touba daj ñun ñi ñoo taxaw tey ñun ñi kenn xalaatu cee dem kaso ngir jëmmi Serigne Touba su boobaa am ngoreeti lay ñëw nan dajaloo te boolewaat suñuy lépp te xeexal Serigne Touba défendre Serigne Touba Serigne Touba du ku ne xeexal naam loolu wax la ci baatin ga waaye nit day wax ca lu mu maîtriser baatinub Sëriñ Tuubaa xamuñu ci lu toll ne tarfatal ay ñun ñi ñëpp ay nit ci neen ñu ci am baatin boo ne kenn doo ñaar ñoom ñëpp a si nañ ko lijjanti ndax ñii di def lu bon lañ ko wax ay boromi xel na ne ci boromi pexe xam-xam sax amuñu ko te ay ragal képp lan moo tax ñu làqatu def li ñuy def waaye nit ñi mu cee jàkkaarloo fës du wax li ñuy wax Sëriñ ko kon nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi bu fekkee ñoom mënuñu koy ñun mën nañ ko am nañ jot. am nan xel bi am nan fit bi am nan dëkk ak taxawaay bi lu waaye taxaw ni ko nii ci Serigne Touba rek ñu taxaw nag lijjanti ko ba mu mat sax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa rawatina nag mbokki taalibe yi di tàmbalee sunum nuyoo nee mi ngi tàmbalee ab nuyoom ci sunu kilifa ci kilifaam mi toog fii nii gi toog fii ci baas bi te xam ne moom moo waroon a wax nga xam ne kàddu gii kàddooma waaye day wolof yi dañuy wax ni ndigal waaye wolof de day faral di wax baatub ndigal ni caabi la ni caabi la bu ëppee du ibbi bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi bu yéesee du ubbi te man sama kilifa te nee moom kilifaam mooy sëñ Mouhamadou Lamine Mbacke mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke mii toog bu toogee fii ne bu toogee fii Euh, waruma woon a toog sax fii ma toog. ne fii mu toog den rek moom sax waru fi woon a toog. waaye ndigal rek la. waaye ndigal rek la. ngir ak lewetam. ngir ak lewetam. moo tax nu toog fi. moo tax mu toog fi. kon nag suñuy kàddu. nee na ay kàddoom. si euh, moom lañ koy njëkke ci sëriñ Lamine lañ koy njëkkee. te mooy kàddu yi sant. muy kàddu yi sant. ak ngërëm. ak ngërëm. te xam ne moo nu ko def loo. te xam ne kàddu yi cant yooyee ak ngërëm Serigne Lemine moo ko ko sant defloo ko. bu na ko defloo wutoon. ne bu ko ko defloo wutoon. suñ kàddu ñemewuñ koo yëkkati sax. nee na kàddoom ñemewut a jóg. si fii. ci fii ak si feneen ak ci feneen ndax man ci ndigal rek laay dox ndax moom ci ndigal rek lay te kilifa gi kilifteef gi nga xam doon na ko ci man te ne kilifteef gi nga xam ne Serigne Lamine doon na ko ci moom wallaay lancim nee na wallaay lancim lu ma nangu la ne nangu na ko lool ndax defu ko ndax defu ko defuma ko defu ko moom mi yàllaa ko def yàllaa ko def kon nangu naa ko lool kon nangu na ko lool eh, nee ko bu ma gisee nee bu la boo ko gisee. ak boo ma gisul. ak boo ko gisul. na xam ne ci yittey taalibe yi rekk laa ne. nee na nga xam ne ci yittey taalibe yi rekk la ne. te mooy ay yitteem. te mooy say yitte yow. ndax maa doon ay tànkam. ndax mooy say tànk. fépp foo xam ne jotiwu fa. fépp foo xam ne jotiwu fa. ñun dana la fa jotal. nee dana la fa jotal. loolu rek moo moo waral sax ñu yéex a ñëw. ne loolu sax moo tax ñu yéex a ñëw. ndax dama am benn taalibe bu waajuram faatu sa si boxotaan. nee na fee ca si boxotaan nu ko doon taxaw tey jii ñu ko jii si ginnaaw tisbaar ci ginnaaw tisbaar te ma waroon ko taxawee tam ñoom ma waroon koo taxawee naa sëñ Moustapha ne woo na sëñ Moustapha wax ne ko si loolu laa ne wax ko ne ko ci waaye démb fii la ma waroon fekk loolu moo tax ma guddee nee na koy jégalu bu baax nee na sëñ Moustapha mi ngi la koy jégalu bu baax di jégalu sëñ ci kàddu yi ñu yëkkati nee ngi nuyu nag mbooloo mi sëriñ bi ne mi ngi nuyu nag mbooloo mi eh, di wax ci borom bis bi nga xamante ni mooy sëñ Afi Ahmadul Muxtaar nee na nag di wax tuuti ci borom bis bi nga xam ne mooy sëriñ Afi Mbakke Ahmadul Muxtaar ndax man sëñ Afi moom ndax nee moom sëñ Afi moom dama koy faral di wax da koy faral di wax yàlla dafa dogal yàlla dafa dogal dama see amul sago amul ci sago waaw amul sago moom amul ci sago sëñ Afi nag ne sëriñ Afi nag bu doonee koo xamante ni bu doonee koo xam ni. li nu am si Serigne Touba yëpp. li nu am ñun ci Serigne Touba yëpp. Serigne Afia nu ko defal. Serigne Afia moo ñu ko defal. dañuy wax ne. dañuy wax ni. suñu juddu woon tey. bu nu juddu woon tey. fekk Serigne Afia doon leneen. fekk Serigne Afia doon leneen. boo moytuwul sax nu doon ko. mu nee na kon leneen rek la ñuy doon waaye nag ndokk waaye nag ndokk bu ñu fekkee sëñ aafiya ba nu fekkee sëriñ aafiya mu ànd ak sëriñ Touba mu ànd ak sëriñ Touba ci ba muy am fukki ci ba muy am fukki at keroog bi maam Anta Ndiaye Mbàkke nee na koroog bi ci loxol sëñ gaawaan jàppee ci loxol sëriñ ko yóbbu ci magam ju baax sëriñ Touba di ko ci magam ju baax ji sëriñ Touba sëriñ aafiya la àndaloon sëriñ aafiya la àndaloon loolu yàgg na lool nee na loolu yàgg na lool kon nag loolu yi nee na kon nag lool mooy li indi sëriñ Afi fii. mooy li indi sëriñ Afi fii. Eh, sëriñ Bousso mi ngi koy wax sànq. nee na sëriñ Bousso mi doon waxtaan wax na ko sànq. nee eh, wax na sëriñ Afi. nee wax na ne sëriñ Afi. musta yittewoo dara. musta yittewoo dara. fu mu masaana sañcub dëkk. fu mu musaana sañcub dëkk Serigne Touba rek daa woolu Serigne Touba woolu ko indiwaat ko ci wetam indiwaat ko ci wetam ndax ñoom ñaar dañoo mënut a tàggale ko ndax ñoom ñaar mënuñoo tàggale ko li si sabab gi rek nee na sabab gi rek mooy bi mu nekkee njuukeem mooy bi mu nekkee njuukeen eh, sëriñ Modou Farmata daa ko wooyee sëriñ Modou Farmata ko daa wooyi lu baree bari lu baree bari Serigne Touba daa mujj ne ne Serigne Touba daa mujj ne. ne aafe man ak yow tëluñu àdduna. ne ko aafe waa ji man yow tëluñu àdduna. toogal fii sama wet. toogal fii ci sama wet. may jaamu yàlla nga di ko seere. may jaamu yàlla nga di ko seere. loolu moo indi sababu ñu aafe ci biir kër Serigne Touba. nee na loolu moo indi sababu Serigne Afia ci biir kër Serigne Touba. ba njaboot lu ëpp ci njabootu Serigne Afia. te lu ëpp ci njabootu Serigne Afia. ci biir barab boobu lan gane àdduna. ci biir barabu Serigne Touba bii lanu gane àdduna. muy ku mel ne Serigne Abdoulaye Karam. mu mel ne ñu ciy tudd sëriñ Abdoul Akram ak soxna Seynabou ak soxna Seynabou Mbacké ak soxna Xari Mbacké ñoom ñëpp ci biir kër sëriñ Touba ñoom ñëpp ci biir kër sëriñ Touba gii lañ gën a àdduna ndax sëriñ Touba ndax sëriñ Touba ak sëriñ Afia ak sëriñ Afia mosuñoo tàqali ko benn yoon mosuñoo tàqali ko benn yoon lu dul keroog bi sëriñ bi demee Touba lu dul keroog bi sëriñ Touba ñibbee Touba bi mu demee Touba yi sax ne bi mu demee Touba yi sax ci la digal sëriñ Afia ci la digal sëriñ Afia xamal ko ne ko yaag maam Cheikh Anta xamal ko ne ko doon benn saala bu doon jiitoo Cheikh Abdou. boo fi bàyyi waaye boo fi bàyyi ko fi bàyyi ko waaye boo fi bàyyi ko nañ la indi Touba nañ la indi Touba denc la sama wet denc la ci sama wet loolu nag sëriñ Moussa sax mi ngi koy nettali nee na loolu nag sëriñ Moussa Ka sax nettali na ko naan rakkam sëriñ Afia nee na rakkam sëriñ Afia la woo moom doxali la woo moom doxali Touba suba talaata Bamba kumale Touba suba talaata bambaakumal. waat naa ne. waat naa ne. gis naa fu sëriñ bi bindoon. gis naa fu sëriñ bi bindoon. naan sëriñ Afy ni ñëw dend naan sëriñ Afy ni ñëw dend ak kon loolu lu wér la. nee na kon lu wér la. kon nag eh, si ñoom ñaar seen seen ànd. nee na kon sëriñ Touba ak sëriñ Afy seenu ànd. mosuñu ko tàqalikoo benn yoon. mosuñoo tàqalikoo benn yoon. Eh, damay wax ne rek doy na ci waxtaane sëriñ Afy. nee na nag day wax ne doy na ci waxtaane mooy ki njëkk doon ilimaan ci yoonu murit. mooy sëriñ Afy mooy ki njëkk doon ilimaan ci yoonu murit loolu rek doy na nee na loolu rek doy na rawatina na ku toll ni sëñ Touba rawatina nag ku toll ni sëriñ Touba ku mu doyloo ci diine ku mu doyloo ci diine ku sa ngor ku mu doyloo sa ngor ku mu doyloo sa fulla ku mu doyloo sa fulla ku doyloo sa jom ku mu doyloo sa jom ba jiitale ci kanamu jaam ñi ba jiitale ci kanamu jaam ñi kooku leneen nga kooku leneen nga kon na koogi nee na kon kooku ku koy wooteel ab bis ku koy wooteel bis am na ameel nañ la cant ameel nañ la cant boo xamante ni xamuñu fu ko mën a wax xam ne xamuñu fu ñu ko mën a wax moo tax sëñ Moustapha moo tax ne sëñ Moustapha day rakk da ngay rakk waaye nag dama naan sama kilifa waaye nag day wëlbatiku ne yow kilifam bi ndax li ko sabab ndax li ko sabab man damay wax ni moom day wax ni lépp lu mu mujj sëñ Saliou lépp lu ko mujj ci sëriñ Saliou Afia mm, mooy sama kilifa nee na yaay kilifa moom rek laa gëm na ndax sëñ Saliou Afia dong la gëm yàlla xam na ne nee na yàlla xam na ni lu mu amul sax lu mu amul sax soxlawu ma lool soxlawu ma kon nag moom mi kon moom mi mooy sama kilifa mooy kilifaam maa ngi koy xamal na ko nee mi ngi lay xamal ni maa koy dolli sant sant bu baax nee na mi ngi lay dollee sant ci turu njaboot gi yëpp ci turu njaboot gépp ci turu njabootu kër sëriñ Afe ci turu njabootu kër sëriñ Afe Mbakke njabootu sëriñ bi muy ñëw de bi muy ñëw sëriñ bi ma sëriñ Saal ci boppam woona ma ne ma foo toll ne ko foo toll mu ne ko damaa toll si bi xotaan mu ne ko damaa toll si bi xotaan waaye maa ngi ñëw waaye maa ngi ñëw mu ne ma bisub sëñ Moustapha bi de mu ne ko bisub sëñ Moustapha bi de kon nu leen def moom nu ngeen def ak moom ma ne ko lu mu ma ne ko lu mu guddi guddi rek maa ngi ñëw Mbakke mat na ko de mu ne ko mat na ko de ndax foofee de ndax foofee de su ma mënoon a toog ci biir baas bi su ma mënoon a toog ci biir baas bi ànd koog moom ba bët set ànd koog moom ba bët set man dinaa ko def man Serigne Saliou danaa ko def kon nag yéen bu ngeen defee loolu kon yéen bu ngeen defee loolu mel na ne man ngeen koy defal mel na ne man ngeen ko defal te nii ngeen koy defee rek te nii ngeen koy defee rek noonu rek lañ ko bëggee noonu rek laa ko bëggee njabootu Serigne Saliou nag njabootu Serigne Saliou nag dañoo mel ne miir bu taxaw rek dañoo mel ne miir bu taxaw rek la yàlla waxoon la yàlla waxoon inna allaha inna allaha yuhibbu yuhibbu lasiina lasiina xaatiloona xaatidoona waxaatidoona waxaatidoona fi sabilihi fi sabilihi safan safan ka annahum ka annahum bunyaanun bunyaanun marsoosun mansoosun marsoosun marsoosun yàlla dafa wax ci alxuraan nee na yàlla dafa wax ci alxuraan mu yi dafa digal saaba yi yonent bi ni leen ni leen na ngeen na na ngeen sofaloo na sofaloo ba mel ne ba mel ni ay birig yu sofaloo ay birig yu sofaloo ndax ay birig kat ndax ay birig kat buñ sofaloo buñ sofaloo moo tax mu mën a jëm ci kaw moo tax mu mën a jëm ci wu nekk ci suuf te weneen tegul ci ci kaw du dem fenn nee na du dem fenn njabootu sëñ Saaliw nag ne njabootu sëñ Saaliw nag noonu lañ mel noonu lañ mel ka jiitu sa birig ba ka jiitu ci birig ba mooy si Mahamadou Lamine mii mooy si yow Mamadou Lamine moom mi rek la ñuy roy nee na moom mi rek la ñuy roy ci ak lewetam ci ak lewetam ak jikkoom ju baax ak jikkoom ju baax ak yërmandeem ak yërmandeem ba boo ko gisee sax ba boo ko gisee sax bu buñ toogee man bu buñ toogee damay am kersa moom day am kersa ngir woyofam ndax woyofam te ma xam ne tam xam ni wallaay lazim wallaay lazim fees na dell ak fees dell ak baatin loolu nag nee na nag mi ngi koy seedal bu baax nit ñëpp nee na mi ngi koy seedal nit ñëpp wax sëñ eh, sëñ Moustapha di la wax ne sëriñ Moustapha na nga gën bu baax na nga a góorgóorlu bu baax ndax lii da yombul ndax lii yombul sama xol sedd na guy nee na xolam sedd na guy man de su ma sañoon nee moom de bu sañoon lii bis bu set muy am lii bis bu set muy am ndax loolu rek ma ñor ndax loolu rek ko ñor kon nag koy sant bu baax kon ne mi ngi lay sant lay gërëm mi lay gërëm di digal mboolem taalibe yi nag di digal mboolem taalibe yi di wax ne bisub sëñ Moustapha bii di leen wax ne bisub sëñ Moustapha bii dafa bokk ci bisi sëriñ aafe yi dafa bokk ci bisi sëriñ aafe yi bokk bokk ci bisi sëriñ saaliw aafe yi kon a fekk nee na ci lum ñu mën a fekk nañ ko bàyyi ci bis bi maa ngi leen koy digal yéen ñëpp nee mi ngi koy digal ñëpp mi ngi digal mboolem ku fi teew di ñaan yàlla di ñaan yàlla suñu borom def ci dëkk bi jàmm suñu borom def ci dëkk bi jàmm ak ci réew mi yëpp ak ci réew mépp di ñaanal di ñaanalit ñi ko jiite ñi ko jiite suñu borom defal leen jàmm suñu borom defal leen jàmm ak ak yu bari ak xéewal yu bari yuñ ko mën a yore yu ngeen mën a yore bis bi luñ mën a yore réew mi lu ngeen mën a yore réew mi ñi jiite réew mi yàlla leen yàlla defal xéewal yu mën a yore réew mi waaw ndax daa mel ni kat ndax daa mel ni kat réew mi naqari na lool réew mi naqari na lool te it loolu yi loolu yi nag nee loolu nag kon nag sëriñ kon nag sëriñ Cheikh rawatina ñoom si Mouhamadou Lamine rawatina ñoom si Mouhamadou Lamine nan ñaan nan ñaan suñ borom def ci réew mi jàmm suñ borom def ci réew mi jàmm def xéewal def xéewal def nawetu barke def nawet bu barkeel yàlla mën ko muurloo yàlla nañ ko muurloo barke sëñ aafe ci barke sëñ aafe jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu kàddu yi nag nee ngi jéggalu kàddu yi eh, lépp lu dëng nee lépp lu dëng mana mooma lépp lu jub lu jub nanu xam ne si sëñ sëñ Lamine nañ xam ne baaxul sëriñ Lamine rek waaye man nee na waaye du ci moom. maa ngi jégalu bu baax. nee na mi ngi jégalu. di sant sëñ Moustapha ak ñëpp. di sant sëñ Moustapha bu baax. di sant mboolem ñi nga xam wax nañ fi yëpp. nee ñu fi wax nag te yëkkati fi kaddu yëpp mi ngi leen di sant. lii moom rafet na lool. nee na li ngeen seen kaddu yi rafet na lool. di nuyu ñu jógee si sëñ Mourtala am sëñ Fallou. nee kaddu yi jógee ci sëñ Mourtala am sëñ Fallou. ak ñu jógee si sëñ Mahfous. ak yi kaddu yi sëñ Mahfous wax. ndax euh, diggante suñu Afe. ndax diggante sëñ Afe. ak boroom daaru. ak borom daaru. benn rek lañ woon. daa joxe nee na sàq yi borom daaru daa joxe ñaar la ko daa def ñaar la ko daan def benn bi sëriñ Touba benn bi sëriñ Touba benn bi sëriñ Afe bi yow ma bu a jot bu mosaan a jot sëriñ Afe da daa jóge fii sëriñ Afe da daan jóge fii dem gane ji borom daaru dem gane ji borom daaru loolu sax defe naa tàmbali nañ ko nee na loole sax jàpp na ne njaboot gi tàmbali nañ nga ñoo ngi koy def si jamonoy at yi yëpp at yii yëpp ñu ngi koy yeesalaat kon ñoom ñaar benn lan kon ñoom ñaar benn lañ ñoo bokkoon Mame Mor Anta Sali ñoo bokkoon Mame Mor Anta Sali ñoo bokkoon Sëñ Tuubaa waaye ñoo bokkoon ndax mbokk gépp rafetoon ndax mbokk gépp rafetaloon kon lii rafet na lool kon nee na sëñ Maxfuus lii rafet na lool sant na si bu baax nee na sant na ci bu baax gërëm nañ ci bu baax a baax gërëm na ci bu baax a baax jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi wa radiyallahu taala an cheikhina alxadimi xayril alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu tey siyaarante ak yéen bu baax tey siyaare ak Cheikh Muntaqa di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi lool te defal ko ku wér ba lim yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu def ko lu kawe njortam di nuyu itam di siyaar sëriñ Saliou Afiya mi nga xam ne mooy sunu sëriñ di suñu waajur di ko ñaanal suñ boroom wéral ko te yàggal ko ba li mu yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci toolub Sëriñ Afiya mu amee ko nu kawe njortam di nuyu Serigne Cheikh Faty Diop mi nga xam ne itam buntu këram lañuy ñuy defee lii di suñu maam yar ñu ci lu bare bari di nuyu itam Cheikh Mourtada Fadlu mi nga xam ne démb sax woon nañu bëggoon a ñëwal boppam waaye ginnaaw bi la yebal ab taawam. boole ji sëriñ Bousso mi nga xam ne foo ko gis gis nga sëriñ Mourtala loolu nag réy ci noonu lool ndax bés bi ñor na ko lool ndax ku xam sëriñ Mourtala xam ne lu ko ñor ba mu yëkkati téléphone woo la di ca diisoo ak bu yow di la laaj xam nga ne bu amutoon ngànt dana teew kon Mbàkke ñu ngi koy nuyu te moom itam damay wax ne bokk yépp amee nañ ko ak cant ndax sëriñ Touba rek moo ko ñor may nuyu di sant itam <clears throat> ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ Saliou Afia buñ ko tuddee Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mooy taawu sëriñ saaliw ak sëriñ Abdourahman danañ mën a yóbbaale njaboot yépp ñu di leen sant ndax njaboot ak sëriñ saaliw kenn mànkewul ñoom ñëpp ñëw nañ ci bis bi jàpp nañ ci bis bi lépp ngir suñ jëmm te defal leen loo xam ne jar na ko kon cant gi ñu leen ameel sax man lottu naa ci wax leen ko waaye man itam de maa ngi leen di waatal ne li ma leen ambal ci sama biir xol lépp loo xam ne maa ngi koy def muy jëm ci ñoom rek yàlla na loolu ji yàlla naa ci jiitu man kenn ku ci ne ci ñoom la ma yéene sama bopp moom laa ko yéene may nuyu itam mbokk yi nga xam ne teew nañ fi yépp sëriñ Mahfous ñu ngi lay nuyu di la sant ci kàddu yi am na solo xam naa dinaa ci ñëwaat ci kanam sax ndax sëriñ Touba la ko yonent bi jaraloon moom la war a jaral dammi wa ahli wa awlaadi fidaa ulahoo abdan xadiman lahu muskaana lii sanada loolu rek lañu suñ Tuubaa war a jaral dana ci ñëwaat ci kanam di sant itam soxna say sax wuruma ko war a sant waaye nag waaw góor day yokk ngóoro te waaw góor kenn du ko wax ku deful dara ndax maa ngi wax léegi ne mbooleem naan yi ñu doon jëfandikoo fii ci bis bi lépp moo ko jaayante kon kooku soxna la waaye taalibe la jàppe boppam kon foofu mu teg tànkam ñu ngi koy ñaanal suñ boroom saxal ko fa te àggale ko ci ab liggéeyam may sant itam dara baraw njëkk naa yónnee doyatu ko mu ñëwalaat boppam te bis bi ñor ko lool ndax ba ma woowee moom sax moo ma woo di ma fàttali bis bi ma koy xamal ne ko gone yi danañ ko indil carte mu ne ma jërul ñu may indil carte ndax man ci laa bokk danaa ñëw te dinaa ci jàpp te nem ko waxee noonu la ko defee tey di doomi soxna nag ndax Serigne Saliou Fall mooy maamam waaye bu ñëwee fii du nangoo sax toog ci kaw ngir jàppe boppam ab taalibe kon moom itam ñu ngi koy sant te di ko gërëm di sant itam Cheikh Gueye moom baay tey ba Gueye di responsable politique APR moom itam dama ko ko wax léegi ma ne ko daaw biñ koy doog a tàmbali ñëw nga yabaloo kenn ren itam ñëwalaat nga sa bopp yabaloo kenn kon kollëre gi nga fasanteek ñun dëgg la ci yow moom itam ñu ngi koy sant day koo xam ne doomi soxna la ndax dafa jàng diine comme niñ ko jàngee ba noppi jàngaat tubaab ba noppi am yéeney liggéeyal Sénégal kon bu fasanteek ñun kóllëre di ñu jëfal jëf ju mel nii baax na itam ñu sant ko ci kanamu mbooloo mi di sant Sayer Diop moom itam yónni na rakkam Modou Diop ba noppi woowaat nañu di ñu xamal ay teq-teq yu ko téye ba munta teew ci bis bi soxna jaar Jaariyatu Saar moom itam jóge na fi léegi ñëw ndeysaan teew jàpp ci bis bi bu baax ak Yankooba moom itam finance ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp bu baax di sant it sëñ Buya Sekk xombal di suñu jëwriñ moom it ñëw na fi sonn na ci bis bi taxawu na ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko Sëriñ Tuubaa fay délégation Moustapha Guèye itam DC Crous bu Thiès njiital Mourtala Fall moom itam ñu ngi leen sant ci seen teewaay sëñ Alhaaji Touré itam di suñu wóllëre jóge ba Casamance nga xam ne altine la jóge Casamance ñëw ci bis bi am na fi juróom-benn fan ci tey kooku itam ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax suñu wóllëre la bis bi àgg na ko foo xam ne buy ñëw da koy yégal mbokkam yépp di ànd ak ñoom moom itam ñu ngi koy sant tey jàppaat suñu kóllëre ak moom bu baax di sant itam waa daayira bi tey sirul asir ndax ñoom itam daanaka bu bis bi jub soyee lu jege weer daanaka kenn dootu nelaw ñu ngi waxtaan di amal seeni réunion di xool naka lañ mën a taxawoo bis bi ba jaar yoon jàll ak jàmm kon ñoom itam maa ngi leen di sant te di leen bàyyi ak Serigne Touba mi nga xam ne moo leen jaral ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi yàlla na leen Serigne Touba fay. di sant itam waa waa bitim réew ñu ci mel ne waa Brésil ci teewaayu suñ Maodo mbàkki géey ak waa Argentine ak waa Turquie Istanbul ak waa Italie. Espagne Amérique ñoom ñépp jàpp nañ ci bis bi taxawu nañ ci bis bi bu baax a baax daanaka bis bi fi mu àgg lu ci bare bari ñoom jëf nañ ci bu baax a baax ngir jëmmi sëriñ Touba rek kon ñoom itam sëriñ Touba mi tax ñuy jëf ñu ngi leen di ñaanal sëriñ Touba yàlla na leen defal lu kawe seen njortu sëñ Babacar Sylla itam ñu ngi lay sant bu baax. yaag waa jumaa ji nga àndal di liggéey yépp ndax yow itam bis bi sonn nga ci taxaw nga ci ni nga ci war a taxawee yaag mbokki taalibe yépp ñi ngi leen di sant bu baax kon kàddu yi daanaka dafa xas guddi ba noppi dañ koy xaw a gàttal daanaka xaw a dagg cérémonie bi ndax jàngkat yi war a jàng bari nañ sëñ Maxtaar Fall bu xombal ñëw na léegi mi ngi fi ak sëriñ Cheikh Sall mii nga xam ne mooy jàngkatub sëriñ Saliou Afia ak sëriñ Modou njaay Baara yëkkati fii xasida yoo xam ne bànneexoo nañ ko bu baax ak sëñ sëñ làmp Cheikh Diop Mbaye ak mbooleem jàngkat yi nga xam ne ñi ngi fi ak sëñ Alaaji Wàdd mais nga xam ne moom itam day soññ ci sëriñ bi di koo xam ne boroom xam-xam la war naa yëkkati kàddu war naa waxtaan ak Cheikh Abdou Lahad Bousso ambassadeur ñoo ñëpp kenn ku ci ne war naa jël ay kàddu yaatal kon buñ duggee ci biir rek ba xeewlu dañuy àndaat ak mbooloo mi ñu war a ñëwaat ñu ñëw ñu continuer cérémonie bi waxtaan wi ñu war a def ak ñoom ñu waxtaane ko ak ñoom jàngkat yi jàng waxtaankat yi waxtaan ba fajar incha allah ñu doo ko yeeweeku waaye li ñu waroon a waxtaan danañ ci laal tuuti rek kon dañ koy xaajale waxtaan laal ci tuuti li ci des ñu bàyyi ko ba xewlu ji bu ñu àggale ko mbokki taalibe yi kon ngeen may ma tuuti rek ma waxtaan ak yéen rawatina ñi nga xam ne maay seen kilifa ma di leen soññ di soññ sama bopp waxtaan wi nag ñetti tomb la waroon a doon ndax bu njëkk bi ci dëkkandoo laa ko jëmee woon tomb ñaareel bi kan mooy kilifa ak naka la war a yilife tomb ñetteel bi ki ñu yilif naka la war a toppe ki ko yilif bokk jullit yi dëkkandoo lu am solo la te lu mat a bàyyi xel la ndax suñu boroom dige na ci waaye tëkkoo na ci ngir bëgg nit ñi sàmm ko te rafetal ko bu baax sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ci alxuraan ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsaanan wa bi dil qurba wal yataama wal masaakin wal jaari dil qurba ila axiril aaya ba suñu boroom waxee ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak dara rafetal jëme ci ñaari waajur akuk bokk ak jegeñaale ak jirim ak miskin dëkkandoo la ca teg wax ne nan ko sàmm nan ko rafetal jële nañ ci abdullahi umar mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jibril deñut di ma dénk dëkkandoo di ma ko dénk ba ma jàpp ne su nit faatoo dëkkandoom da ko war a dond maa zaala jibrilu yuusini bil yuusini bil jaari xataa zanantu annahu sayuwarisuhu kon dëkkandoo lu foor la lu mat a bàyyi xel la dem na bay wax ne ab jaam dugam yàlla mukk ndara bu dafa bëggal dëkkandoom la mu bëggal boppam walladi nafsi bi yadihi laa yuminu abdun xataa yuhibba li jaarihi maa yuhibbu li nafsihi bokki jullit yi bokki taaliba yi nanu rafetal dëkkandoo gi di waxante lu rafet di jëflante lu rafet di dimbalante te yàlla rekk tax di suturaalante di jàppalante waaye di nëbbulante ay ayib ngir te yàlla rekk tax lu waay xamal boppam lu waay xamal moroomam ci lu baax nga di ko wax waaye lu waay xamal moroom itam moroomam itam ci safaan nga di ko ko nëbbal te yàlla rekk tax ndax yonent bi wax na ne man satara musliman satarahu llaahu yowmal xiyaama kon nañu suturaalante ayib yi tey waxalante lu rafet te yàlla rekk tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku gëm yàlla gëm bis penc nay rafetal jëme ci dëkkandoom man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yuxsin ila jaarihi kon rafetal baax na lool ndax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa ahsin kama ahsana ilayka te ab jullit du mbokkum jullitam sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi bokki jullit yi bokki taalibe yi nanu fonk dëkkandoo nanu jàpp dëkkandoo te xam ne dañu koy laaj ëllëg yowmal xiyaama la ca topp mooy kilifa kilifa mënuta ñàkk képp ku gëm yàlla te bëgg a baax bëgg a mucc danga nga am kilifa ndax sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne ñi yàlla ñépp maay seen kilifa allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumaati ila nuur waaye mu ne ñi nga xam ne gëmuñu yàlla te yaakaaruñ lu baax seytaane mooy seen kilifa walladina kafaru awliyaauhum taaxuut yuxrijunahum min annuuri ila alzulumaat ulaika ashaabu naari hum fiha xaalidun kilifa nag dafa am nu mu war a mel te mooy mu làmboo jikko yu rafet xam lu baax te nekk ca di digle di digle lu baax te am yërmaande lool ca ñamu yilif nooy lool mën a maslaha am ak ak ñoom lépp lum bëgg mu xam yoon wa muy jaar ci maslaha akuk nooy ba am ko waaye muy jéggale kilifa day jéggale tey jëllale kilifa du mer kilifa du jàpp mer kilifa du xuloo kilifa du farfarloo waaye kilifa it day diisoo balaa def dara war na caa diisoo ak ñamu yilif ndax kilifa bu dul diisoo du jug ci juum te kilifa bu juumee mbooloo juum kilifa dafay ñame responsabilité ci ay waxam ak ci ay jëfam te bu mu ñuuru kenn kilifa du ñuuroo saa yu gisee lu ko jaaxal na ko gëstu baa mu laaj ko lii lépp nag alxuraan tënk na ko ci benn aaya fa bima rahmatin min allaahi linta lahum walaw kunta faddan xalisal xalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum fi l amri fa ida asamta fa tawakkal ala kon mbokk yi nañu am kilifa ndax kilifa mënut a ñàkk yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ki nga xam ne moom lañ yilif itam la ko war mooy mu xam ne kilifteef mënut la ñàkk mu topp kilifaam lu mu ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko te balaa def dara wala mu wax dara mbaa mu dugg ci dara mu tàggu kilifaam te lu mu ko ca wax mu def ko tam am wormal itam ci kilifaam buy wax dara waa muy waxtaan ak moom naxaar ba waxam daane mu soog a yëkkati bu mu toog ak moom ci kaw ngir wormal ko ndax worma dafa am solo lool ci sa kilifa kilifa it day dañoo war di diisoo ak moom ku am kilifa danga war di diisoo ak sa kilifa foo toll te xam ne kilifa du tuuti ndax ku amul kilifa seytaane di sa kilifa loolu Serigne Touba Serigne Touba moo ko wax Serigne Touba wax na ne li anna man adama cheykhan murshida fa cheykhuhu seytaanu xaysu xasada Serigne Bay Jaxate nee na am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max kon nañu topp suñu kilifa rawatina ku am kilifa gu mel ne sëriñ Touba ne ko Serigne Mahfous doon waxee Cheikh mi nga xam ne ku jariñ ak sëriñ Touba moom la dafa am bis sëriñ bi woo ñetti mag sant leen ab liggéey ci guddi gi di leen wutloo matt te booba àll bi lëndëm na lool gaynde yi nekk fa mag ña tëdd di dallu ne dañuy bàyyi ba mu leer ñu dem wuti matt ma andil ko Serigne bi. Seex Ibra yëg ko bàyyi bañ nelaw mu topp guddi gi fa gaynde yi nekk mu dem taxanal fa seriñ Touba matt mu sayu rëy yanu ko ci fajar gi ñëw di di ñëw ba mag ña yeewoo di dem di taxanali sëñ bi sëriñ dajeeg ñu dajeeg Seex Ibra muy ñëw yanu matt mi Seex Ibra ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko Serigne Touba la ñuy taxanali matt mu ne leen matt ma di taxan ko ci guddi gi ñu ne ko noo def ak gaynde yi nga xam ne ñoo doon tëdd fii ci àll bi mu ne leen mu waaye doom ma defoon na Serigne tuubaa rek mooy gaynde xamatuma genn gaynde gu dul Serigne Touba kon Serigne Touba nañu jaral suñu alal nañu jaral suñu dareet nañu da nañu jaral suñu lépp bismil ilaahi maa ngi way ki jara te jara ngoy kooka di ki may bëgga way sëñ Saaliw Mbakke aafiya bila emaade ne nga ma ndax xelaa reg na ma te yow sa diine man doy na ma sëriñ Saaliw Mbakke aafiya sëriñ Bamba gërëm la mu di ñoom naw nanu la ñi dul murid naw nanu la sëriñ Saliou Mbacké aafiyam ku jaxle daw di ñëw fi yow ku rafle daw di ñëw ci yow ku di daw di ñëw ci sëriñ Saliou Mbacké aafiyam ku jaxle daw di ñëw ci yow ku rafle daw di ñëw ci ku xiif di daw di ñëw ci yow sëriñ Saliou Mbacke aafiya